yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. alhamdulilahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa alaa aalihi wa ashaabihi wa xadiimihi wa man ihtadaa bi hadyihi ilaa yawmi ddiin. bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw bu ñu sante yàlla sunu boroom tabaraka wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant ak ak tagg bu baax Mawlana Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala an ñaan sunu boroom mu taas ñu ci barkeem bi barakati yonente bi sallallahu alayhi wa ñi ngi nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaxa te di ko ndokkeel di ko ñaanal suñu borom may ko gudd fan ak wér di nuyu jullit yépp ak fu ñu mën a nekk gannaaw loolu mbokk yi ñëwaat nañ ci jataay yi nga xam ne daaira Muxaddamatul Xidma da leen koy defal ci weeru koor tey jii di fukkeelu fan ak ñaar ci weer wi kon ñi ngi ci fukki fan yi nga xam ne moo nekk ci digg bi di fukki fan yi yërmande di ñaan suñu borom mu yërëm ñu jéggal ñu suñuy bakkaar barakati xadim rasul euh, ñi ngi nuyu bokk yi fi teew yépp di nuyu bokk yi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñi ñuy topp ci MKTV wala sama samadiyya TV Timis Lamp fal télévision ak rajo yi nga xam ne ñooy jokkoo ak ñoom ak site internet yi nga xam ne dañuy jokkoo ak euh, site internet bii tamit ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu rajo yi ak télévision yëpp rek di leen indil tomb boo xam ne ni ñu leen ko waxe woon démb euh, dañuy jàngat xasida xasida gu am solo goo xam ne bokk na ci xasida yi nga xam ne am na solo lool te am histoire ci yoon wi te am barke te bari njariñ waaye xasida gi nag dafa làmboo tamit ak dëkk bii di mooy Touba muy Matlabul Fawzayni xam ngeen ne sëriñ bi bi mu sancee dëkk bi la taalif xasida googu di xasida ak Matlabul ni ngir lépp loo xam ne bëgg na dëkk bi mel ko mu ñaan boroomam mu melal ko noonu lu ci soxla tamit ci wàllu kaaraange lépp mu ñaan ko ci waaye soxla yi nga xam ne am na ko ci bëgg ku fi dëkk mel noonu it lépp mu mu daxañ ko ci biir xasida boobu kon dafay mel ne suñuy waxtaanee xasida gi ñu ngi waxtaane Touba ñu ngi waxtaane it ku dëkk Touba nu mu war a mel waaye nan nga ko war a warmaale kan moo war a def waxtaan wi am na solo ndax mbir mu nekk it jox ko ko ko xam te man ko def ci am solo muy sëriñ Mamor Mbakke moom sëriñ am di Gaawaan moom sëriñ Seex Astawaalo moom Mamor Jaara kon jàpp naa ne suñ ko tuddee askanam danañ xam ne e, fii la bokk te war naa waxtaane tomb waaye tamit di sëpp sëriñ bu soobee tamit ci jig wet waaye loolu rek du doy du doy ci ñun ñuy tànn kuy di war a def waxtaan fii duñ ko tànnee ci loo ci wet googu rek waaye dañ koy tànn ci koo xam ne góor góorgóorlu na ci am njàng ba xam ca lam ca war a xam waaye doon gëstukat doon bindkat tamit doon koo xam ne ku gëstu la ci yoon wi gëstu ci njàngaleem sëriñ bi lool kon am nañ yaakaar bu baax a baax a baax ci ni mu ko daa defee ci at yi weesu yépp ci ne incha allah yal na ko yàlla defal tawféex ak taysiir ba mu jooxe ko nu raw ni mu ko daa joxe kon sëriñ Mamoor Mbàkke am di moomu moo war a def waxtaan wi waruñu koo tënkal nag ci ñetti tomb bi njëkk danañu waxtaanal ci Tuubaa ci boppam maanaa jëmmi dëkk bi ci boppam fi ko sëriñ bi tegoon ak dëkk bi nit ñi war nañoo xam dëgg dëgg dëkk bi rawatina ñun ñu fi dëkk su noppee nag danañu gaaral xasida gi nga xam ne mooy xasida ak Matlabul Fawzayni danañu ko gaaral waaye su noppee nag dana waxtaan tamit ci tomb mujj bi muy ñi nga xam ne ñooy waa Touba ñun ñu dëkke Touba nan la ñu war a mel ak yan comportement la war a am waaye loolu lépp tamit nag dafa fekk na mi ngi koy tibbe ci biir xasida gii di Matlabul Fawzayni kon jàpp naa ne ñetti tomb yooyu la ñu war a waxtaanal kon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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi di leen siyaare bu baax ci weeru màgg bi ñu nekk muy weeru koor ci barab bu màgg bi ñu nekk muy néegu suñu borom subhaanahu wa taala waaye di jumaay Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu nuyoo boobu ak siyaare bi nag ñu koy tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal lool mu yàgg fi te ànd ak wér ba mbooleem naal yi mu am ngir liggéeyal ko sëriñ bi mu def ci lu kawe njortam di siyaare bu baax waa daairatu muxaddamatul xidma ki nga xam ne ñoo ñoom la sëriñ bi féetale fii ñuy taxawu barab bi te di ci def seen kem kattan ci njiitul suñu sëriñ suñu nijaay di sëriñ Afia ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñoom la ko àndal di sant bu baax sëriñ Abdou Lahad ci ni mu tàmbulee waxtaan wi bëri na ci yoo xam ne waroon naa ko wax jàpp naa ne sax euh, ni mu ko ubbee rek dinaa mën a doy loolu euh, ngir njëkkante ak waxtu wi di waxit ne tomb bi tomb bu am solo la ñoo ngi sant bu baax daayira bi ci bii ak yi ko jiitoog yi ciy topp yépp rek ngir jamono ju ne tomb yi ñu tànn ñi ngi koy xool mu doon yooyu war naa mën a jural njaboot gi njariñ bu baax a baax mag ñi mën cee fàttalikoo ndaw ñi mën cee mën cee jànge Euh, thème bi sëriñ Abdul Ahad wax muy xasiid ak Matlabul nii moom la ñuy gaaral rek gaaral gu gàtt xam naa ne sax moom ci njëlbeen dina baax ma wax ne ñëw ma fi ngir wax lu kenn xamut ci xasida gi loolu moom képp koo xam ne da ngaa ñëwoon ngir dégg loo xamut ne ngir gañe waxtu mën ngaa euh, mën ngaa dellu rek bala bala laa dog di fekk ñëw ma fi ngir wax lu kenn xamutoon damay ñëw rek ngir wax li ma baaxoo dégg fii rek ñu di ko wax loolu rek laa ñëw ngir wax siwaat ko ci waxtaan wi ni ko si Abdoulaye waxee mën nañ koo def ci ñetti tomb yooyu bu njëkk bi mooy Matlabul Fawzayni am na ñaari ñaari wàll yu bokkut am na li ñuy wax jaane fikri bi mooy xalaat wala sëriñ bi eh, dëxañ ci biir mu doon yoo xam ne dañ ko war a jëmmal loolu ak wet la ci xasida gi donte am na geneen wet goo xam ne liñ koy waxtaane bariwut mu jaanib ruuxaani bi wala irfaani gi googi diggu xóot goo xam ne mel na ne suñu mag ñi sax wet googu lañ gënoon a bàyyi xel ci xasida gi ñoom waaye wet gu njëkk gi xay na ni ñu bindee thème bi ci laay gën a jooyal waxtaanu jëm te mooy yi ci sëriñ bi def ci biir xasida gi ba noppi bu waxtu yi desee lu ci xaj rek ñu xaj xajal ko ci euh, loolu nag mu ne su ko waxtaanee te waxuñu tuubaa gi nga xam ne fi la sëriñ bi bindee xasida gi moo tax tomb mu njëkk bi ñu bëgg cee waxtaanee tuubaa rek ak sanc gi ak wàccuwaay bi nga xam ne sëriñ bi moom la ko joxoon ak jubluwaay yi mu ci amoon bi mu fiy ñëw su ko defee ñaareelu tomb bi ni ko sëñ Abdou Lahad waxee ñu gaalal ci xasida gi gaalal bu gaaw rek ci ñetteel bi nag ñu juqi ci biir xasida gi yoo xam ne sëriñ bi junj na ko ci wax nu mu bëgg dëkk bi mel ko ak ñii ne ci dëkk bii it nuñ bëgg nu mu bëgg ñu mel ko kon ci tomb bu njëkk bi te mooy Tuubaa ñu waxtaane ko dana am solo bala ñoo dugg ci xasida gi ndax dina tax ñu xam dayoo bi xasida gi am dëgg-dëgg Tuubaa xam ngeen ne mooy ñaareelu dëkk bi sëriñ bi sanc sanc ko ci atum li ñu gën a miin muy atum 1306 muy Wasochin di 1888 euh, bi mu ko sañcee it euh, Touba di dëkk bi waaye ak kër gu nekkoon ci biir dëkk bi muy fii ñu nekk tey muy fii jumaa ji ne di kër goo xam ne wax nañ ne guddee woon na juróom-ñeen fukki mètre yaatoo juróom-benn fukk muy kër gi nga xam ne fii la sëriñ bi féete woon waaye amoon na fi geneen kër gu mu tuddee daalul xuddus nga xam ne fa la daan defee ay xalwaag yu dem na yu demee ni ki noonu donte am na ñu nekkoon sax njaboot gi ak daarul daaru rahman muy fii kër Serigne Chouaïb bu nekkoon daan na fa dalal ñu bari ci ay gan waaw na lu mel ne borom xam-xam yi daan jóge gànnaar ak yooyu ak daarul minan ngeen nga xam ne it daan na fa nekk guddi ne di def ay yàlla ak di fa dalal ci yenn ci kilifa yi nga xam ne daan nañ fi ñëw di ko seetsi loolu lépp boo ko boolee nag ci biir bu ñu waxee Touba mooy dëkk boobu noonu euh, ñu gis ne kon bi mu ko sañcee muy dëkk bi am fi kër yooyu muy muy Touba daaru salaam daarul astaghfirullah Touba daarul Quddus daarul rahman ak daarul minan xasida gi it mu bind ko tuddee ko Matlabul Fawzayni nga gis ne tur yooyu yëpp euh, sëriñ bi da koy yum tànn lay doon euh, xëy na moom askan bi mu bokkoon li ñu baaxoo woon mooy rek dëkk bu ñu sanc ñu delloo ko ci seeni askan wala ci seeni sant bari na lool ci biir Sénégal ay dëkk yoo xam ne Mbàkke la la tàmbalee Mbàkke Sañanka Mbàkke Bawol gi mu gënee àdduna moom Mbàkke Kajoor gi mu wootee yoon wi yooyu yëpp euh, mënoon naa def noonu rek bi mu sancee te loolu it dara nekku ci waaye bi mu ñëwee xëy na gisun wu wuute bi mu am tax na ba faaw du mën a jaar ci yoon wi ñëpp jaar mu jël lépp delloo ko ca cosaan la mooy ci suñu borom subhanahu wa taala dëkk bi mu njëkk a sanc mu tuddee ko daaru salaam muy kër suñu borom muy kërug jàmm muy aljana waaye dëkk bi ci toppit di Tuubaa gi di garab gu nekk ci biir aljana muy wéy daarul xuddus daarul mën na daaru raxmaan ak yooyu sëriñ bi boo delloo ci tur yi muy tànn ci ay dëkkam wala ci ay téere yi muy taalif li ci ëpp dana am ñett yoo ciy seetlu lu njëkk li mooy euh, wetug diine gi ak wetug ruuxaani gi da ko ci yitteel lool lool lool booy xool ci dëkk yi gis nga daaru salaam tuuba daarul xuddus ak yu ni mel sooy xool ci mbind yi euh, da ngay gis euh, moom it anam gu mel noonu rek la ciy waxee lu mel ne jaalibatul maraaxib lu mel ne masaalikul jinaan muy yoon yi nga xam ne moo jëm aljana lu mel ne jazbul xuluub li ñoddi xol yi jëmee ko ci suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne umpalewul dara yooyu yëpp tur wi connotation bi rek da nga ci xamee sëñ bi am na euh, lu mu bëgg lu mu bëgg def ci bopp yi ci tur yi rek tur yi ni mu koy tànnee waaye euh, beneen anam dana feeñ ci tur yi muy tànn mooy wàllu jikko ni mu koy yittewoo rawatina ci téere yi muy taalif euh, da ngay gis lu mel ne lu mel ne al abraar xisnul abraar lu mel ne lu mel ne al mutadarriin toxfatul mutadarriin ak yu demee ni ki noonu yoo xam ne sëñ bi saa buy tànn da ngay gis ne wàllu jikko yitteel na ko lool ci ci ci biir mbind mi almuhtadin kanzul muhtadin ni ki noonu it ni mu yittewoo jikko yi dana yittewoo wane ne gisin bi mu am ci ci àdduna mooy ab jub ab jumtuwaay la bu nit ki di jaar ngir defar ci ëllëgam moo tax lu lu lu lu lu indi texeeg àdduna ak àllaaxira da ko yitteel lool ci yi muy wax lu mel ne matlabul fawzayni gii ñuy wax muy li ñuy sàkkoo wala sàkku euh, texeeg ñaari texe yi muy texeeg àdduna ak àllaaxira lu mel ne nuuru daarayni xijaabu xijaabu euh, daarayni Euh, bëri na lu lu lu lu sëñ bi di wax ci yooyu euh, lu mu koy wax ba ci sax gis ngeen bind yi lu mu ay maraaxib ak yooyu fil xaali wal maali mu bëree lu mu ko ciy wax nga xam ne rek moom gisin yu am daa wute lool ak ñi ko jiitu woon ci ahlu tasawuf ci jublu rek ëllëg bàyyi euh, àdduna ji ba mu ba ëpp moo tax ngeen di gis lu mel ne jaawatu lu mel ne rek la ci wax axasu min duniyaahu zaadi lil jinaan mooy àdduna bi da koy def jumtuwaay boo xam ne rek wala waruwaay boo xam ne da ci war a jaar ngir jël yóbbal bu mu yóbbaale ëllëg loolu kon moo ko indi woon fii ci dëkk bi di Touba bi mu ko sancee it lenn képp képp moo taxoon mu sanc ko mooy jaamu suñu borom subhaanahu wa taala moo tax téeram boobu mu bind tuddee ko euh, addu'aul kabir donte ginnaaw bi yeesalaat na ko am nañu jàpp na sax xis na labraar la euh, bi mu koy bind muy rek du'aul kabir gi laa bëgg a wax ca biir xam nga junñu ne ci loolu suñu borom allahuma innaka xutta zimaami ila al ardi allati ixtartaha lii suñu borom yow kat yaa ma wommat ba indi ma ci suuf si nga xam ne subhaanallah yaa ma womat ba indi ma ci suuf si nga xam ne yow yaa ma ko tànnal yow yaa ma ko tànnal ixtartaha lii ne ko bi ma fi ñëwee def naa fi ñaari kër yoo xam ne lenn képp tax ma def ko fi mooy jaamu la ngeen gi jaamu li abadu ko fihima bil imaani wal islaami wal ihsaani ne ko nag kon li ma lay ñaan rek mooy e, nga xam ne ñoom tuddee naa leen e, daaru salaam wa tuuba sam wa samaytuhuma daaru salaami wa tuuba tabarrukan bihima maa ngi leen tuddee daaru salaam ak tuuba li ma ci jublu nag di ko barkeeloo ci seen ndax daaru salaam mooy aljana Touba mooy garab gu nekk ci biir aljana mu ne ko li ma ci jublu nag mooy di ko barkeeloo ci seen turandoo yooyu kon maa ngi lay ñaan fajaxalhuma bi fadlika wa bi jaahi rasulillahi wa bi jaahi wasilati ilayka sallallahu alayhi wa sallam saalima tay ni xaanima tay ni maa ngi lay ñaan nga def ci nga def fi ñaar yooyu muy alxunmu wa salaama maa wala boog asalaamat wal xunmu am nañu am jàmm nañu am xéewal tamit kon leeral na ne dëkk bi loolu rek moo ko fi woon te mooy ñëw ngir jaamu suñu borom subhanahu wa taala loolu sax gis ngeen ci biir xasida gi bi mu ñëwee ba sanc ko rek eh, bi muy junj suñu borom faqul fa xumtu eh, majzuban ilayka minka bika alayka wa raditu anka fa xumtu ne ko nag fa xumtu majzuban ilayka jug jug naa nga nga ñoddi ma jëmee si ma ci sa bopp minka tey ci yow laa jóge woon bika teyit ci sa ndimbal rek laa jaaree ñëw muy laa xawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim eh, bika alayka te it ci yow rek laay wakkilu muy tawakkaltu ala allah wa raditu anka ne ko te loolu maa ngi la ciy gërëm lu ci topp rek Euh, gërëm naa ci li war a ñëw lépp euh, mu fawwidan musalliman ilayka amri muhaajiran lima ladayka summa ilayka laa ilaa sirwaak summa ilayka laa ilaa siwaaka xad sirtu lamma lam ajid charwaaka bi ma xoolee ba gis ne euh, yow rek yaa fi nekk nag banaan lépp lu dul yow te jublu la ndax xam ngeen sëñ bi ci dundam bi mu ñëwee tubaa loolu ci beneen étape bu bees la dundaat moom la duggaat moom sëriñ bi soppi ni mu doon jàppee mbir yi soppi ni mu taxawaayam soppi doxalinam Euh, loolu kon euh, danañ ci xamee rek euh, jubluwaay bi nga xam ne sëriñ bi moom la amoon bi muy dugg si bi muy sañc sa dëkk bi xéewal yooyu nga xam ne suñu borom baaxee nag ko nag ci jot gi mu jot ci dëkk bi ndax xam ngeen sëñ moo Modou Khari Bousso maami sëñ Abdou Lahad mi am na jotaay bu mu séq ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu te sëñ ko ci nettali ay nettali yu bari am na bu mu ko ca wax ne ko tuubaakat li tax ma bëgg ko bëggin wu kawe wii nii li ko waral mooy suñ boroom dafa dajale woon xejjam yépp wan leen tawféex ji ci dëkk bi ji ci barab bi ñëpp bëgg ko bi ko ñëpp bëggee euh, ku ne bëgg ko suñ borom ne leen léegi ginnaaw demee na noonu dangeen ngeen di bàyyi suuf si mu tànnal boppam nee na suuf si tànn ma man sëñ bi nee na looloo tax bëggeel gu gu fool googu am suñu diggante man ak dëkk bi looloo ko waral xam ngeen jamono ji mu nekkee njaareem am na jamono joo xam ne sax ndox mi mu jëfandikoo sax fii lañ koy rootee te ba ba ñuy àgg njaareem du laal suuf ba ni mu xëyee ne suñ borom xamal na ko ne ko li mu ko defal ci ndoxum Tuubaa defal na ko ci teen boobu nekkoon ci biir kër gi kon loolu di wane fonkeel gi mu fonkoon dëkk bi moom moom sëriñ bi loolu nag moo tax ba bi mu fi ñëwee mu jàpp ne xéewal gi mu doon wut yëpp jot na ci faju tëlli yow ma euh, bi xayri mi na ni waxutta ni ila qatifaa is sunani jox nga ma xéewal yi gën a mag tey doomal nga ma ba nga xam ne dinaa fi mën a jaamoo yàlla ngën gi jaamu kon sëñ bi li ko indi woon fii rek mooy barab bu mu jaamoo yàlla waaye barab boo xam ne euh, euh, dafiy mën jëmmal li nga xam ne moom la indi woon ndax sëñ Tuubaa bi muy doo a ñëw radiyallaahu anhu barab bu mel ne tubaa munu ko woon a ñàkk moo tax wër na ko lu mat juróomi at ba juróom-benn yoo xam ne bi mu wootee ba ni muy agsee Tuubaa barab bu mel noonu lay wut barab boo xam ne dina fi mën a nekk moom jaboot gi nga xam ne ñoom la ñoo ko wuy si ci woote bi mu woote ngir mu ànd ak ñoom ci yoonu siraatal mustaqim ak yoon wi nga xam ne moom la indi mënutoon ñàkk lu mel noonu it ndax euh, bi ci njëkk mooy moom dafa ñëwoon ngir yeesal diine ak wammat mbooloo mu bari ci yoon wow nga mooy nga xam ne mooy yoon wi mu sóobu woon loolu benn la ñaareel bi it yoonu tarbiya bi mu indi woon du woon luñ miin ci fi ne te li doomu aadama baaxoo mooy saa bu gisee lu bees ci fi mu ne loolu choc danay faral di am ci ci diggante ñi ci bokk ak ñi ci bokkut kon mënutoon na ñàkk barab bu mel noonu loolu moo tax yoon wi donte Mbàkke Kajoor gi waajuram sancoon fa la ko wootee waaye diir bu gàtt la fa ne gis ne jaxasoo bi mënta ànd ak li mu bëgg moom ci tarbiya dëgg-dëgg mu ànd ak mu néew moom àndaloon ñëw Mbàkke Bawol gi nga xam ne fi la sañ fi la fi la feeñe jamono diggante bu gàtt la fa nekk it xam ne rek jaxasoo bi bari na te bëgg wéet gi mu bëgg mën agu ko am donte foofa nekk na fa ci ñetti barab yu bokkut waaye fu mu nekk rek xam naa mel ne rek li mu bëgg dëgg amagu ko mu mu jox sëñ bu soobee këram gi mu amoon ci Mbàkke dem sañ ci sañci Daaru Salaam ba ni mu fa nekk ab diir it mel na ne loolu ba léegi topp ko mu jox ko Maam Cheikh Anta rakkam ñëw sañci Tuubaa gi ginnaaw bi nga xamee ne wër na ko ba gis ko ba keroog bi mu ko gisee nag bi ko mag ñi ñi ko njëkk gis bi ko fekkee fii mu xamal leen ne leen li mu doon wër lépp nag jot na ci bis ni ki tey ne nañ ko defal fii kër ci lañ daal di dem Daaru Salaam indi ay bagage xam ngeen jël na ay nangami weer laata askan laata njaboot gi di doog ñëw di sanc si fii kon loolu mooy historique bu tënku rek ci fi sëriñ bi jaar ba sanc dëkk bi ak li taxoon mu sanc ko te mooy mënu ko woon a ñàkk a ndax soxla woon na barab boo xam ne dina fa wéet ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wuy si ci woote bi ngir mu mën leen a tarbiya def ci ñoom jikko yi nga xam ne moom la bëggoon dëkk boobu nag bi mu ko sancee dafa mel ne ni mu ko bëggee moom sëriñ bi dafa bind ak xasida goo xam ne mooy xasida gii ñu war a waxtaane muy matlabul fawzayni te mooy ñaareelu tomb bii nga xam ne moom laa war a tàmbali nii matlabul fawzayni di xasida goo xam ne sëñ bi nee na ñaar la ci def mooy addu'a wa shukr maanaam da ciy sant suñ borom ci xéewal yi mu ko jot a defal ngir mu dolli ko di ko ci ñaan ci yeneen yu mu bëgg mu dollil ko ko ci xasida gi nag sëñ bi day mel ne ni mu bëgg dëkk bi mel ko li mu bëgg mu am fi li mu bëgg waa dëkk bi mel ko ci ay jikko loolu la dëxëñ ci biir xasida gi teewul nag xitaab bi discours bi li ci sëñ bi bind dafay xaw ma jagoon naa laay wax wala maanaam dafa doon loo xam ne day am ñaari wàll maanaam bu jugee ci sëñ bi jëm ci suñu borom subhaanahu wa taala ay ñaan la maanaam ay ay ay ay ñaan la yu muy sàkku ay talab la waaye su jugee ci sëriñ bi jëm ci njaboot gi nag loolu ay ndigal la yu mu leen di digal ngir ñu góor góorgóorlu ci ñoom seen kem kàttan ba jëmmal bëgg-bëgg yooyu nga xam ne moom la am ci biir dëkk bi kon ñaareelu tomb bi mooy ak gaaral gu gaaw rek ci xasida gii di Matlabul Fawzayni xam ngeen tur wi ñu ngi ko tuddee Matlabul Fawzayni muy eh, sàkku ñaari texe yi muy texe ak àdduna ak alaxira muy masdar mii mii donte xëy na mënoon naa nekk zarf waaye fii moom masdar mii mii lay gën a lëng waaye tur wi wi ko sëriñ bi tuddee xam ngeen sëñ bi eh, ci manhaj wala méthode bi nga xam ne moom lay ëpp fu muy jaar di ci tuddee xasida yi léeg-léeg mu am xasida yoo xam ne tur wi da koy def ci biir bayit yi ci misaal lu mel ne jaalibatal maraaxib samaytuha jaalibatal maraaxib bi fii ajilin kan ajilin li raaxib bi mu yooyu da koo dugal ci biir léeg-léeg mu am tur yoo xam ne da koy da koy ber doo ko gis ci biir xasida waaye tur la muy ber noonu rek lu mel ne Matlabul Fawzayni mën na mën bokk lu mel ne xëy am na yoo xam ne sax du leen wutal tur da leen di bàyyi noonu rek léeg-léeg mag ñi nag ñoom xool ci liñ ko tënkee wala yooyu ñu wutal ko di ko woowee noonu lu mel ne tey xasida gi ñuy wax jawartu donte jaawartu la ñu war di wax lu mel ne loolu dañoo delloo rek ca lañ ko tënkee muy jaawaatullah bi kitaabihi ilaa duxulee jannata kon sëriñ bi tuddee ko mat matlabul nii jubluwaay bi waxoon naa ko sànq mooy sant suñ borom ci xew li mu ko defal di ko ñaan yeneen yu mu bëgg mu dolli ko ko taalibe yi nag ñoom war koo déggee ay digal yu leen sëriñ bi jox kañ la ko taalif bi mu sancee Touba ba noppi la ko taalif fii ci Touba la ko taalifee wax nañ ne sax fii ci kër sëriñ Saalix radiyallahu anhu ci biir foofu la ko barab ba sax garab gaa nga fa woon barab ba ba léegi keesu matlabul fawzayni lañ koy muy fii ci kër sëriñ Saalix kon soriwuñu dara fi ko sëriñ bi fi ko sëriñ bi taalifee kon fi sëriñ bi taalifee xasida gi soriwuñu dara xasida gi it ci baxaru rajaz la ko sëriñ bi bind li mu bëy di ci nekk it mën na ñaar téeméer bayit ak fanweer ak juróom-benn ñaar téeméer bayit ak fanweer ak juróom-benn moo ne ci biir xasida gi tolloog li mu kun fayakun loolu xam naa ñoom sëñ Isaa ñoom ñoo may gën a xam yooyu bu dee tënku xasida gi it ne ko sëñ bi tabaxe ni mu ko bindee mooy dafa def genn tarjumaan ci njëlbeen gi teg ci bayit yi mu ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn yi defaat geneen tarjumaan ci mujj gi xam ngeen sëñ biir ci tarjuma tarjumaan yooyu li ñuy woowee tarjumaan ñun loolu am na nu nu mu ko baaxoo def ci xasida yi léeg-léeg nga gis xasida goo xam ne du am tarjumaan ci njëlbeen gi du ko am ci mujj gi léeg-léeg nga gis goo xam ne ci njëlbeen gi dong lay def tarjumaan mujj ga du ko am léeg-léeg mu xam ne ca mujj ga def waaye du ko def ci léeg-léegi mu am xam ne da def ci njëlbeen gi def ko ci mujj gi damay tënk nii rek ne kon bu ci ne danaa mën a joxe misaal Matlabul Fawzayni nag am na genn ci njëlbeen gi am na genn ci mujj gi moo tax ku njëkk gi da koo tàmbale rek ni mu baaxoo tàmbale mu suju seytaane wax bismillah rahmaani rahim indi ay ay ay ñaan yu ñu xam ci sunna euh, yoo xam ne ay muslaay la ak yenn ci ay ayat ya ay ñaan yoo xam ne bokk na ci sax yi ci gën a bari yooyu seydna ibrahim alayhi salaam doon wax bi muy sañ ci Makka yooyu la ca indi yenn yi sax dañ koy mu indi suratul xadr indi suratu xuraysh la ci nekk ñu di ko baamu bi mu noppee nag mu indi fukki aaya ak benn yoo xam ne mooy yooyu moo waxoon nga xam ne yi ci ëpp ci ñaani seydina ibrahima yooyu la bi mu noppee nag mu ne suñu borom yow kat euh, euh, wax nga te loo wax dëgg la te it loo digg di ko def yaa ne nag ñaan leen ma woo leen ma ma wuyu leen yaa ne it su ngeen ma santee dinaa leen dolli kon maa ngi lay ñaan te di la sant ci xasida gii tey ñaan mbooleem lu ma ci wax nga nangul ma ko bi mu demee ba ca mujj ga bi mu indee xasida gi ba mu jeex mu ne ko suñu borom yow kat yaa waxoon te lépp loo wax di ko def te loo diggee it loo wax dëgg la te loo diggee di ko def kon nag yaa waxoon ne man jege naa ko ma woo dinaa ko wuyu kon woo naa la fii maa ngi lay ñaan nga wuyu ma ci xasida gi li ma la ci wax loo diggee di nga ko def kon maa ngi lay mboolem lu ma la ñaan ci xasida gi nga may ma ko mboolem lu ma la ñaan ci nga musal ma ci ci xasida gi nga musal ma ci ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu noppee mu indi fukki ci ne rabbana la tàmbale wala rabbi di ay ñaan yoo xam ne seydina ko nag maa ci yonent euh, ñu ci biiram ba faaw te may ñu mujj gu rafet daal di koy tëj kon noonu la sëriñ bi Euh, tënkee xasida gi fonk na loolu Touba fës na loolu ci biir xasida gi bëri na it ay tur yu mu ko ci woowee boo demee ci biir xasida gi am na fukki tur yu bokkut yoo xam ne bu ci ne sëñ bi dana ko woowee dëkk maanaam du ko woowee Touba rek Touba sax yaakaar naa benn yoon rek la root ci xasida gi muy muy wajaxal ilaahi maskan yi Touba abad mislas mi habi jaahi xayri man abad yi ci des yëpp yeneen tur la koy woowee dina ko woowee alxarim xima albina binaiya almaskan albalat yooyu yëpp dina ko woowee bi ma koy xool man na fanweer yoon ak juróom-ñaar yoo xam ne woowee na ko ci ay tur yooyu noonu xeet yooyu euh, ci biir xasida gi am na yit ay tomb yu wuute yoo xam ne sëñ bi tudd na ko ci biir xasida gi bi may xool rek li mu yoon yi mu ci tudd suñ borom subhaanahu wa di ko ci woo nga xam ne da ko ci woo ci tur yaa nangam yooyu mat na téeméer yoon ak fanweer ak ñett fanweer ak ñeent yoo xam ne woo na ko suñ borom ci turam wàllu xam-xam sëñ bi yitte ko yitte woo na ko lool ci biir dëkk bi ci anam gu leer ñaan na ko ci ñaar fukki yoon yu bokkut yoo xam ne ci ay barab yu bokkut yoo xam ne xam-xam la ci ñaan ci biir dëkk bi xam-xam boobu sëñ bi wax it lim ci jublu mooy ñu jëfee ko moo tax jëfe gi moo gën a fés jëfe gi ci biir xasida gi sëñ bi tudd na ko ci juróom-ñaar fukki barab ak juróom-ñeent yu bokkut yoo xam ne gu ci ne ci jëfe xam-xam la ciy ñaan maanaam jëfe xam-xam mooy jaamu yàlla laa bëgg a wax jaamu yàlla lu mat juróom-ñaar fukki yoon teewut li mu fonk sunna tax ba fonk diine mu beraat sunna di ñaan ñuy roy sunna ñuy jëfee sunna lu mat fukki yoon yu bokkut ci biir xasida gi ba tey yooyu yëpp nag li ci jullit bi di ay jikko yu rafet moo tax jikko yi sëriñ bi tudd na ko lu mat juróom fukki yoon yu bokkut ci ay jikko yu bokkut moom maandu ragal yàlla am yërmande euh, tabe ak yu ni mel ci juróom-ñaar fukki yoon yu bokkut ñaan na ay yoon it jàmm am ci biir dëkk bi jàmm am fi ak dal am fi ci juróom-ñeenti barab yu bokkut nekk ko noonu wér-gu-yaram juróom-ñaar yoon bokkut lu jëm ci wàllu koom fukki yoon ak ñaar ak nag yeneen yoo xam ne dama mujj rek ne naa bàyyi ndax bëgguma woon mu génne ma ci li ma tax a jóg dëgg-dëgg kon juróom yooyu moom laa ci doon fesal rek donte des na yeneen ñeent yoo xam ne dama ko mujj bàyyi noonu yaakaar naa juróom-ñett yooyu nag xam naa gën cee yaatal sax dina xaw a xat waaye ci juróomi njëkk yi dinaa ci mën a taxaw te mooy doon ñetteelu tomb bi muy euh, Touba ak waa Touba ni sëriñ bi bëgguñu mel te lépp di jóge ci biir xasida gi loolu kon mën nañ cee jël juróomi tomb yu bokkut bu njëkk bi mooy lu jëm ci wàllu kaaraange ci biir dëkk bi ñaareel bi lu jëm ci wàllu ay xéewal maanaam am koom yooyu liñ koy doyee ñetteel bi mooy lu jëm ci wàllu xam-xam ñeenteel bi lu jëm ci wàllu jaamu yàlla ndax xam-xamit jëfee ko lañ koy doyee juróomeel bi mooy jëfe xam-xam li muy jural jullit bi te mooy ay rafet kon mooy jikkoy rafet juróom yooyu li ci sëñ bi tudd te ne bëgg na mu dëkk bi am ko dëkk bi ñëwaguma ci waa dëkk bi bu njëkk bi di wàllu wàllu sécurité mën nañ ko woowee noonu loolu am na ay anam yu wuute yuñ ci mën a waxtaane sécurité ci wàllu barab bi sécurité ci wàllu ba ci li ñuy jëfandikoo waaye sécurité ci seen wàllu pas-pas maanaam lu leen sàmmal seen pas-pas ba dara du ko kooj dara du ko du ko du ko rax loolu sëriñ bi ñaan na ko ay yoon ci biir xasida gi bu dee lu jëm ci kaalaa ngi nii rek ci barab bi ci juróom-ñeenti barab yu bokkut sëriñ bi mi ngi ko ci tudd am na foo xam ne mu ngi ñaan suñu borom mu aaral ko dëkk bi ci mbooleem xeeti ay ak mbooleem xeeti lu ñu war a muslu rek te kon te loolu nag nag ma ko gaalanteel ba faaw wañal xarimana xariman amina wa kun bi xifzihi kafilan daamina ne ko maa ngi lay ñaan kat suñu dëkk bii nga aaral ma ko def ko muy fu wóor muy fu sàmm te loolu nga nga féetewal ma ko bayit wii sëñ Issa Gueye mii moo ma njëkk a leeral ne Cheikh Sidi Muxtaar mu Cheikh Sidi Mouhamad moom Cheikh Sidi El Kabir moo wax moo wax bayit yi ci ay bayit yu def Cheikh mu Cheikh Sidi Mouhamad mooy bàyyi Cheikh Sidi Ababa sëñ Issa Gueye mii moo ma njëkk a leeral loolu ci wala ko njëkk a waaye ni mu ñaanee loolu it ñaan na suñ borom dëkk bi ne ko mbooleem kàccoor yi ak ñi nga xam ne xaw ma ay woyu la ñu doon wala ay sàmba booy daal ñooñu ñëpp suñu borom musal ci dëkk bi wa maskani sallim min al fujaari wam nun ala al ahli bi maa in jaari ne ko maa ngi ñaan sama dëkk bi nga musal ci nga musal ko ci mbooleem ñi nga xam ne ay kàccoor lañ ak ñi nga xam ne ay yàqkat lañ bayit wi it wax nañ ne moo jiitu sax xasida gi moom far ndax nee nañ am na bis ñeen bi sëñ bi doog a sañ ci dëkk bi ñenn ci mbokki taalibe ñu demoon di wuti ndox ndax boobu dëkk bi manqué woon na ndox lool fii ci boori mbal bu ñu fay wuti ndox xëy na am na ñu ñu fa fekk ci ay ci ay sàmm ñooñu yaataluñ leen ci ndox mi dàq leen génne leen ay ay ay ngànnaay biñ ñëwee ci sëriñ bi wax ko ci la sëriñ bi wax bayit wi wa maskani sallim min al fujjaari wan nun ala al ahli bi maa ngi jaari te nee nañ booba defagul xasida gi waaye it ba léegi ci wàllu kaaraange ñaan na suñ borom ne ko sa mbalaanum kiiraay moom mu nga xam ne kooku muur mu mucc maa ngi lay ñaan nga muural ma ko sàngal ma ci dëkk bi ak mboolem ku ne ci biir dëkk bi wadrib sura wadrib suradiqaati xifzika ala daari wa ma fiha jamian musjala maa ngi lay ñaan dëkk bi ak mboolem ko fi ne nga sàng leen sa mbalaanum kiiraay moom nga xam ne koo ko sàng rek mu mucc waaye ba ci xeeti mala yii sax muy ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu musal ko eh, musal dëkk bi ci seen ay fax mi xee fax mi ximaaya liyakun xisnan xasin an kulli zi naabin wa zufrin kulla xiin bi ka àqattu yaa ilaahi alxasada wa xayatan wa aqlaban wa aswada ne ko kat maa ngi lay ñaan nga aar dëkk bi musal ko sax ci lépp loo xam ne rek ci gàttal lépp luy fette baa muy màtte baa muy fàdde yooyu yépp nga musal ma ko ci ba tudd ko sax ne ko gaynde yi sax lugg na leen wala jat na leen doxal na seen diggante ak ñoom loolu moom fii sëñ bi doon bindee xasida gi rek feeñ na ci ndax fii di ko sëriñ Saalix mu ko doon wax nañ ne gaynde dàq na fi njaay àll ba mu ñëw njaay àll gi laqatu ci ginnaaw sëriñ bi ci fi mu taalifee xasida gi gaynde gi dëpp wax nañu sëñ Saalix doon na nettali ne gaynde gi xel wi mu doon dawee bi mu ñëwee ba ba jub sëñ bi ni mu ne poussière bi dafa jub ba laal sëñ bi sax ndax taxaw bu am doole bi mu taxawee te loolu fi sëñ bi doon bindee xasida gi tey lu ko jiitu sax lu jiitu lii ci ñeenti at wala yooyu defoon na ko ca Mbàkke Bawol ci ba muy taalif Masaalikul Jinaan ci loo xam ne sëñ Mbàkke Buso moo ko nettali boppam moom it moo ko fekkee moo tax bi mu fi jógee ginnaaw bi yëpp tubaab yi jël ko di ko booleeg gaynde da ngay xam ne rek euh, gisuñu ko xam bu ñu gisoon ko xam danañ ko booleeg leneen lu dul gaynde moom ndax gaynde juban na ko ba tàyyi dëpp te def ko dara moo tax keroog bi ñu ko boolee boolee gaynde gi gis ko sutura si ko ci sëñ borom defal sëñ bi nettali na ko sëñ Moodu Xari ne ne bi mu jubee gaynde gi yonent bi moo ko ne Ahmadu taxawal maa lay jiitu nee na diggante boobu ki ma doon yóbbu euh, dane ma xanaa xanaa da ngaa ragal gaynde gi moo tax demal tuuti rek léegi tey nga xam dee li muy saf nee na gi bi mu gisee yonent bi sallallahu dafa sukk ci suuf daal di jógaat wër ko moom sëñ bi song waaju waaju foofu la yam moom waaju foofu la yam na loolu sëñ mag bi nettali na ko sëñ Moodu Xari ci waxtaan woowu mu seqoon nag moom ci njaareen kon loolu yëpp ay yu yu man yu ñett ñeent yu ma jukki woon la rek donte juróom-ñeenti yoon sëñ bi tudd na ko dëkk bi di ko ñaanal kaaraange waaye lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram it noonu kaaraange ci wàllu googu noonu la ko sëriñ bi ñaanee ngir xam ne wér gi li bëgg ci bi muy sañc dëkk bi ci njaboot gi mën a jaamu yàlla gën gi jaamu yàlla loolu munta ne bu ñu amul wér-gu-yaram gi nga xam ne moom charte la ngir nit ki mën a dund dund gu baax moo tax mu tàmbalee ko ñaan ko ci boppam yaa man ala anil makaani wal arad inni saakinun huna wa bi marad fakun anisi washfini min assaqam xata akuna saalikan xayra laqam yow kat suñ borom yow mi nga xam ne kawe nga barab mboolem yi gaar mbindeef yow du la gaar yow dëkk si naa fii waaye nag tawatan ci man maa ngi lay ñaan nga wettali ma te defal ma wér-gu-yaram ba ma mën a soobu ci siraatul mustaqim mën a jàmm yàlla nga xam ne bayit wii sëñ bi leeral na ci ni jullit bi ni taalibe bi war a jàppee wér-gu-yaram mooy mu jàppee ko xéewal goo xam ne da koy jëfandikoo ci jaamu suñu borom subhanahu wa taala maanaam jumtuwaay bu mu war a jëfandikoo ngir jàmm suñu borom subhanahu wa taala noonu it la ko ñaanee ci biir ci wàllu wér-gu-yaram ne ko maa ngi lay ñaan nga defal ma mucc ci mbooleem xeeti balaa yépp te musal ci mboolem julli ñëpp wa najjini wal muslimina min bala wal taqi jusmaniya fi qabril bila loolu it mujj ko sax ñaan ne ko mboolem xeeti balaa yépp ak fépp fu ñu mën a jóge ndax balaa yi ci ñetti balaa rek la ñu mën a jóge moo tax moo xam ñu jóge ci kaw wala ñu jóge ci suuf wala ñu jóge ci ngelaw li mu ne ko fu ñu fi mën a jóge maa ngi lay ñaan nga musal ma ci te musal ci mboolem ñi nga xam ne dañoo dëkk ci dëkk bi wa kun mu'izana min min as-sama'i wa kulli ma yaduur wa kulli wa kulli ma yaduuru fi l ardi wa ma baynahuma yakunu yaa rabba sama mboolem loo xam ne day wàcc jóge ci asamaan wala muy jóge ci suuf si wala muy wër ci seen diggante mooy ngelaw li maa ngi lay ñaan nga musal ma ci te musal ci mbooleem koo xam ne dafa dëkk ci dëkk bi waaye it ñaan ko ne ko nag maa ngi lay ñaan nga daq mbooleem xeeti balaa yeeg tawat yi ci dëkk bi te nga def fi naan gu tey ak lekk gu tey wan fil waba wal balaaya kullaha anha wa tayyib shurbaha wa aklaha maa ngi lay ñaan kat nga daq fi mboolem xeeti balaa yeeg tawat yëpp waaye nga def fi lekk gu teey ak naan gu teey xam ngeen ba léegi fi ñu toll gis ngeen ci bayit wi sëñ bi dafa dafa lëkkale dàquk xeeti tawa tawat yeeg balaa yi ak teeyuk lekk geeg naan gi nga xam ne moom la ñuy ko ci dëkk bi te xam ngeen médecine moderne fi mu ne fi ñu toll mooy wax nañ ne ci wàllu régime aliment régime alimentaire bi maanaam li nit ki di jëfandikoo ak li mi ci ci ci ci wàllu lekk daa am jeexit lool ci wàllu wér-gu-yaram yi nga xam ne moom moom moom moom ci wàllu tawat yi nga xam ne da koy dal maanaam gis ngeen ne ba ci suñu réew mi sax yenn xeeti tawat yi mi ngi fi tàmbalee bari rek ñu tàmbalee lekk yenn xeeti lekk yi maanaam ba ci dugub ji ñu tàmbalee di ko wàllu ci machine yi ci lañ gis ne yenn tawat yi ci la tàmbalee bari ci dëkk bi ndax machine bu wal bu ne yaa ngi gis ne tame boobu ñu koy wale day xëy xëy jeex léegi loolu jeex fu jaar fu ci sunguf si suñ laa doon mm, suñ ko defaloon la ko indil rek yooyu rek ci la jëm nga xam ne xeeti tawat yooyu yëpp mu ngi tàmbalee am ci yooyu bi mu duggee ci suñ biir moo tax siñ bi lëkkale na bu baax euh, dàqook tawat yooyu noonu ak teyeeg li ñu lekk ak naan bi ñetteel bi di lu jëm ci kaaraange ci seen wàllu pas-pas maanaam lu rawale seen pas-pas xam ngeen siñ bi yittewoo na lool pas-pasu pas-pas yi dara bañ koo kooj dara bañ koo yàq dara ban koo moo tax gis nga moom sax bi mu ñëwee ci dëkk bi bi muy sant suñu borom ci njëlbeenu xasida gi rek junju na jëmale foofu shakartuhu li annahu qad saaqani li watanin bihi nafa maaqani sant naa ko bu baax moom suñu borom kat ndax womat na ma ba indi ma ci barab bi nga xam ne dàqale na ma fi mbooleem loo xam ne gàllankoor la woon ci man moom bi mu ñëwee ci dëkk bi rek daa gëm ne li mu doon wut moom jot na ci bis ni ki tey tax looloo indi woon ci dëkk bi mooy daw nit ñi ak daw ci loxoy nit ñi daw nit ñi ak daw li ci loxo loxoy nit ñi moo tax daan wax ne Tuubaa bi mu fi ñëw ñaar la fekk mooy ab wind ak saawo te xam ngeen barab bi barab boo xam kenn mosu fee dëkk ba bu ngeen xoolee ci rapport bi ñu njëkk def di ci tudd ne sëriñ bi mu ngi fi ci Tuubaa bi te mi ngi ci téereb suñu Omar Ba boobu ci 19 mars 1889 nga xam dañ ciy wax ne am na ku ñëw Ahmadou Bamba foofu ñu woowee forêt Mbaafar wax nañ ne man daf na fa ab kaas am néegum ñax ba fa la dëkk nañ ko xool ba xam loolu dëgg la am daane suñ xoolee ba xam ne loolu dëgg la rek nañ ko bàyyi xel da xam ne foofu moom gëmut bi mu koy bi mu fay dem ndax barab la boo xam ne dafa ne ci digg bi diggante ba ak Kajoor ak euh, yu ni mel ne nañ ko bàyyi xel te di ko xool ndax barab la boo xam ne nañ kenn mosu ko moom te dafa nekk ci diggante gox yooyu ñu wax kon noonu ma ko waxewoon sànq ñaanoon na suñ borom it mu musal ñi fi ne ci jikko yi ñi nga xam ne ay kàccoor lañ muy wamaska ni sallim minal fujjaari ñaan na ko dëkk bi mu def ko dëkk boo xam ne dëkkub njub lay doon dëkk boo xam ne dëkkum jub lay doon dëkk boo xam ne it dañ ciy muccee ci mboolem tooñkat wajaalhu maskana xurujin min zulam lin nuuri wakfi anhu kulla man zalam ne ko maa ngi lay ñaan kan nga def ko muy dëkk boo xam ne ciy jaaree di génn ci mboolem xeeti euh, lëndëm wala ndëngate wala naka sudul noonu yi xam ne dina bëgg ko waaye maanaam mën na nekk dëkkum jub rek waaye na nga ko defit dëkk boo xam ne képp ku fi nekk suñ borom dana la musal ci bépp tooñkat niki noonu ñaan na ko mu def ko muy dëkk boo xam ne loolu li ci sëñ bi wax bari na loolu xam ngeen lu jëm ci wàllu euh, loolu sëñ bi wax na ko ay yoon ci biir am na fu mu koy wax sax ne ko wañaal binaa ya binaa aafiya yajuruni ila xuyulin saafiya na doon dëkk boo xam ne rek dëkk bi ci boppam environnement bi rek day jubal day jubal nit te loolu ku tàmm ku miin a génn ci biti xam nga ne Touba moom barab bi jëmmi dëkk bi rek am na nu muy dimbalee ni ñi fi ne ci lu baax da leen di yomb loolu nag ñi fi ne dëgg-dëgg duñ ko xam waaye ñi dem ñi fi ne tey léeg ñu génn ñëwaat ñoo ñoo ñooy gën a xam dëgg-dëgg tawféex ji nga xam ne ñu nekk Tuubaa am nañ ko ci lu baax ni mu lay yombee ab safaan ni mu lay jafe ab safaan ni mu lay jafe waaye it ci gàttal rek ñaan na ko ne ko bépp safaan bépp safaan rek maa ngi lay ñaan nga dàqal ma ko ba bu mu am ci dëkk bi yaa daafi al aswaa'i wal akdaari bil mustafa bil mustafa dfa kulla suu an daari maa ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yaay dàq mboolem safaani yaay dàq mboolem naka su dul noonu yi maa ngi lay ñaan ci barke bi yonent bi nga dàqal ma ci dëkk bi lépp loo xam ne du yiw lépp loo xam ne du lu baax loolu nag déggin woowu la ci kilifa yi am ba jamono yi Cheikh Abdou mu taxaw temm ci dëkk bi euh, mu mu tere fi yooyu mu fi tere woon moo tax bi ñu ñëwee ba 18 euh, septembre 1980 sëñ sëñ Abdou Lahad taxaw ci taxawaay ba mu ci taxawoon donte sëñ Mountakha yeesalaat na ko ci 24 juin 2000 2019 ngir yeesalaat tere yooyu nga xam ne moom la sëñ sëñ Muntaxa moom la Cheikh Abdoulaye tere woon te mu doon tere yoo xam ne it lislaam a ko tere woon démb ak bërki démb suñ mag bi mu sañcee dëkk bi booba lañ ko daloon tere ci dëkk bi waaye nag ginnaaw ci am réew lañ ne moo xam ne dem nañ ba mujj mu am am ay yoon ñu ñu fexe ba dugal ko ci yoonu réew mi ba réew mi nangu ko ba yooyu noonu lislaam tere ku ko def ci dëkk bi yoon mën a dal ci sa kaw loolu am na taxawaay bu am solo boo xam ne am na ko ci sàmm war mooy dëkk bi muy ñaar yooyu moom lu am solo la mooy fexe gi sëñ Modou Moustapha fexe ba dëkk bi nekk titre foncier ak sëñ Abdoulaye loolu mu tere ñaar yooyu joué na joué nañu rôle bu mag a mag ci sàmm war may dëkk bi loolu xam ngeen moo wéy ba ni ko sëñ Abdoulaye dénkee suñu mbokk yi sëñ Muntaxa dénkee suñu mbokk Baay Faal yi ñoom it ñu di ci am taxawaay yu am solo ci jamono yi yëpp ngir rek di fàttali nit ñi li nga xam ne moo taxoon sëriñ bi sanc dëkk bi kon li ñu koy tënkee ci foofu rek ci tomb boobu te mooy lu jëm ci wàllu kaaraange googu mooy sëñ bi ñaan na suñ borom jël mbalaanum kiraay muur ko ci dëkk bi ci mbooleem xeeti ay yooyu yëpp ñu ñu ñuy ragal wal tudxilil jamia fi maknuuni gaybika wax jub naa an il futuuni wa an shiraari l xalqi wal razaya wal jinni wa sheytaani wal balaaya maa ngi lay ñaan nga mboolem ñi ne ci dëkk bi nga dugal leen ci sa biir kaaraange googu nga xam ne ku ci dugg dina mucc nga musal ñu dox suñ digganteeg mbooleem xeeti fitna yépp fitna ju nëbbu ju feeñ juñ xam juñ xamut musal ñu ci mboolem ñi nga xam ne duñu ay nit ñu yiw musal ñu ci jikko yu baaxul yi musal ñu ci jinne yi ak seytaan yi ak mboolem xeeti balaa yépp ci ñaari bayit yi sëriñ bi tënk na ci mboolem yi ñu doon wax yépp ci mboolem xeeti ci xeeti kaaraange yi nga xam ne doon na ko ñaanal ñi ne ci dëkk bi bu ñu jógee ci kaaraange googu bi ci topp mooy lu jëm ci wàllu wàllu koom wàllu koom ci biir dëkk bi te xam ngeen euh, ci biir xasida gi moom la sëñ bi di woowee lu mel ne di ko woowee léeg-léeg mu woowee ko alxayraat wa kasiran xayraati haadal baladi dina ko woowee alminanul muajjala euh, ak beneen am na beneen bu ko ñetteel euh, ñu noonu la ko sëñ bi di woowee ci biir ci biir xasida gi xam ngeen ne xéewal yooyu lu munta ñàkk la ci ab dëkk bu ñuy sanc ngir nit ñi man faa dund dund ku tey maanaam nit ñi ngir ñu mën a mën a mën a mën a féetewoo jaamu yàlla te bañ cee rax leen du loolu faaw ñu am ay xéewal yu leen yu leen yu ko mate sëkk moo tax sëñ bi ñaan suñu borom def xéewal yu bari yooyu ci biir dëkk bi ñaan ko ne ko kat maa ngi lay ñaan dëkk bi nga def ay xéewal yu baree bari yoo xam ne wa kastiran xayraati haazal baladi wa rizqahu maa ngi lay ñaan dëkk bi nga def fi xéewal yu bari yoo xam ne euh, day saawaan day baawaan day bari loolu ci waa dëkk bi te nag bu mu wàññeeku bu mu jeex mu ko waaye xam gi mu xam ne it xéewal yooyu munta jàppandi lu dul ne lu jëm ci wàllu li nit ñi di jëfandikoo moom day day dafi am day teey ci wàllu lekk ba pare moo tax mu jiital loolu wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayyib shurbaha wa aklaha ne ko kat lekk gu teey naan gu teey na am ci biir dëkk bi maanaam li ñuy wax sécurité alimentaire ak souveraineté alimentaire ñaari bokkul la xam nga ndax nit ki mën naa am alalam sax bëgg a jënd lekk te du am fu mu ko jëndee waaye li ñuy li ñuy jëfandikoo na fi am lu ñu ko jëndee ci ñi ko war a nañ ko am waaye ñaan ko mu def fi ndox mu ndox moo xam ne ndox mu bari ndox mu xéewale wa maskani sallim min al fujjaari wamnun ala al ahli bi maa in jaari ne ko nag na doon xéewal yoo xam ne da leen di yóbbu ci yeneen xéewal yu gën a mag wajalahu rabbi minanan muajjala jaalibatan li minanin muajjala foofu kon sëñ bi wax na ndox mi xéewal maa ngi jàpp na sax xëy na waxu ndox kepp mën naa nekk waaye bëgguma xootal ci loolu daal waaye lu mën a xew rek ndox moom sëñ bi ñaan na ko ndox mu mu bari ci dëkk bi kon loolu it ñi nga xam ne ñooy yittewoo wàllu ndox ci dëkk bi ñoo it yi ay soññ la war a doon ci ñoom ndax sëñ bi sëñ Muntaxa taxaw na ci taxawaayu rafet def na ci li mën lépp macha allah ba rek ci lu mënut kon kuréel yi nga xam ne ñoo ko séqit donte ay jàmbaar la ñi ngi def liñ mën lépp lu ñu gën a mën a góorgóorlu ci anam googu rek nañ xam ne ñu ngi ci ñi ci bëggug sëriñ bi bi mu jógee ci loolu it mu ñaan suñu borom mu def fi ci dëkk bi alal ju maanaam wërsëg dëkk bi am wërsëg waaye nag wërsëg wu wërsëg wu wu lew wërsëg wu lew wa risqaha jaal atyab alxalaali fi l usri wal yusri ala tawaali matlabul fawsé ni bokk na ci yi mu gën a ràññi ko mooy sëñ bi baat yi muy jël bu ci nekk day mel ne fii moom li mu bëgg a wax baat bi rek moo fi baax bu ko dindi woon dugal beneen leneen lay wax ne ko na nga def wërsëgu dëkk bi mu nekk atyab alxalaali maanaam bokk ci la gën a lew la gën a lew te it loolu na nekk jamono ju ne bu mu dog bu mu dog mukk maanaam bu ñëpp nekkoon ci crise Touba moom ñoom bu ñu ko yëg loolu nag ñi nga xam ne ñoo fiy liggéey ci wàllu économie wàllu commerce bay yu moom war nañ cee bàyyi xel ci watu wattandiku lépp loo xam ne lu jëm ci riba la lépp loo xam ne lu lu lu lu dëppawut ak diine la yoolu moom ñoom war nañ ko daw seen seen kem kàttan te xam ne sëñ bi ñi mu doon ñaan ñu yëngu fii ci dëkk bi mooy ñoo xam ne la ñuy def day day tege ci diine day tege ci diine ñaan na it suñ borom ne ko mbooleem fu aw yiw ne nanga ma ko ñoddil mu ñëw ci dëkk bi te ñoddil ma ko ci juróom-benni barab yépp xam nga li ñu gënoon a miin muy li ñuy wax les quatre points cardinaux muy penkook sow gànnaar ak saalum sëñ bi da ciy boole kaw ak suuf da ciy boole kaw ak ne ko ci juróom-benni wàll yépp fu fa yiw ne nanga ma ko ñoddil mu ñëw ci mu ñëw ci dëkk bi wajbu lahal xayra min al jihaati as sitti wakfiha anil afaati maa ngi lay ñaan nga ñoddil ma nga ñoddi ay xéewal indi ko ci dëkk bi ci juróom-benni wàll yooyu yëpp bayit wi it fi mu ne sëñ bi njëkkoon na ko wax laata muy def xasida gi ca Mbàkke Bawol ca xew-xew boobu waa Mbàkke amoon la fekk si ko foofu ci foofu mu bindee Masaalikul Jinaan bayit yam bayit wi bokk na ci lim la waxoon bokk na ci lim la waxoon waaye dinañ ci déggee kon ne lu jëm ci wàllu économie lu jëm ci wàllu investissement ay investisseurs ñëw di di ci dëkk bi loolu lu sëñ bi lu sëñ bi ñaan ci dëkk bi lu ñu war a taxaw la moo xam mairie bi moo xam ñu war a tourisme religieux mu war nañ cee taxaw ci ci dëkk bi ndax euh, Touba ni ko sëñ ko sëñ bi ñaanee ñëpp dañ fi am soxla ñëpp dañ fi war a ñëw ñëpp di jóge fu ne kon loolu it war nañoo am waajtaay woo xam ne dina tax ba euh, ñooñu ñemee te ñoo fekk si ñu ñaan na it suñ borom ne ko na nga fii def na nga ko def na nga def dëkk bi mu am sécurité te am wërsëg wa ardahu jaal arda rizqin wa aman wa rahmatin wa saatin kulla awaan fii bi muy ñaan ci bay bi boole na ñaar mooy boole na jàmm muy sécurité ak alal ju bari ba pare jiital jàmm ji ndax ku ne xam na ne jàmm mun ta ñàkk ci ab dëkk ngir ñi si borom alal yi sawar nga indi fa seeni alal moo tax mu ñaan ko ne ko dëkk bi na doon dëkk jàmm waaye na fi wërsëg bari wa rahmatin wa saatin kulla awaan te it yërmande na fi bari maanaam ñi nga xam ne ñoo am alalit nañ yërëm ñi nga xam ne dañ leen a tane moo tax wet googu it lu ci mat a bàyyi xel la ci ñi nga xam ne lu jëm ci jàmm ak sécurité ni ma ko waxee ab dëkk faaw mu ngir mu mën a avancer faaw istiqlaal am fa te mooy faaw ak dal am fa waaye nag yërmande jooju it ñi nga xam ne ñooy yëngu yëngu ci wàllu wàllu yaxantu liñ ci war a xamee mooy Touba alal ji nga xam ne moom lañ fi amee warta doon loo xam ne rek wut àdduna rek lañ ci wut warta doon loo xam ne àdduna rek ci wut waaye dafa war doon loo xam ne waruwaay lay doon bu ñu jaar ngir dem ëllëg moo tax ñi nga xam ne ñoo fi yëngu wala suñu borom dégg leen wërsëg war nañoo gën a bàyyi xel ci xam ne dëkk bi moom dëkk bu am particularité la dëkk la boo xam ne it dëgg la sëñ bi ñaanoon yëpp waaye ñaanu ko woon rek ngir mu doon lu ñuy puukale woo wala ne dañ koy téye di ko fuyoo ci suñu biir waaye ku ne comme tane war na ko cee dimbale xam ne alal ji e, maanaam alal ak wërsëg bokkut nit ku ne lii alalam lii wërsëgam mooy lim ci lekk rek la ci des nag moom alalam gépp la bu faatoo mu dem ci yeneen loxo moo sëñ bi daf doon ñaan xéewal yooyu rek suñu borom defal ko xéewal yoo xam ne murit bi da ci jaaree ngir dem ci xéewal yu gën a mag mooy jaar waay la doon boo xam ne ngir làq ngërëmu suñu borom wajaalhu rabbi minanan muajjala jaalibatan li minanin muajjala ñetteel bi mooy lu jëm ci wàllu xam-xam ni ma ko waxoon sëñ bi tudd na ko ñaar fukki yoon yu bokkul ci biir xasida gi wajal binaa ya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi maa ngi lay ñaan sama barab bii kat nga def ko mu barab na Tuubaa dëkku xam boo xam ne te xam ngeen loolu def na ci kem kàttanam bi mu fi nekkee moom sëñ bi moo daan jàngaleel boppam yemut ci di fi jàngale sampoon na ay jàngalekat yemut ci loolu lépp bi ñu ko fi génnee yóbbu ko ci géej géej fu ne bi mu ñëwee ba njaareem amoon na yeneen taxawal fi daala joo xam ne euh, ni ko sëñ bàkk bu sa waxee daara daara joo xam ne takkoonu a Sénégal waaw rexlata ahli Sénégal nga xam ne waa Sénégal gépp ku bëgg xam-xam da nga ñëw sàkku ji ko xam ngeen loolu la sëñ Muntaxa di dabu ci daara ji ak nag daara yi ne ci dëkk bi yëpp doon seen kem seen kem kàttan kon sëñ bi ñaanoon na dëkk bi mu doon dëkkub xam-xam mu am ñaari bayit yum ñaan yoo xam ne ñaan na ci juróom-benn wala juróom-ñaari mbir yoo xam ne yépp ci xam-xam la jëm muy wajalhu daban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi wa maskana al irshaadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi ne ko maa ngi lay ñaan nga def dëkk bi muy dëkk bu ñuy xamloo di dëkk bu ñuy xalaatee suñu borom subhaanahu wa ak di fi balloo rek ak dëkk boo xam ne dañ dañu fiy ko waaye bi mu ko ñaanee ñett yooyu ci bayru njëkk wi ci suuf da koo ñaan ñu mën a taxawee loolu maanaam ci kaw maskana taallum la koy wax mooy foo xam ne dañ fay jànge ci suuf mu ne ko maskanal irshaadi wa taalimi foo xam ne dañ fay jàngale mooy ñu jàng nañ fi ne ñu mën a jàngale nañ fi ne maskanal fikr mawdi al foo xam ne dañ fay xalaate ci suuf mu ne ko maskanal taswibi foo xam ne ku xalaat xalaat bu juyit ñu mën laa jubanti ci kaw mu ne ko wa tafahumi foo xam ne dañ fay gàggantikoo ci suuf mu ne ko wa tafhimi foo xam ne dañ fay gàggantee mooy kon suñ bi ñaan na jamono ju ne ñuy sàkk xam-xam ne fi waaye ñu mën a taxawee xam-xam boobu ne ci dëkk bi te alhamdulilah rabbil alamin daara yi ëpp ci dëkk bi tey eh, ñi fi ëpp ñu koy taxawee eh, waa dëkk bi la ji ci gën a jege rek mooy daarul maarif gi ne ci jumaa ji nga xam ne ñi dëkk ëpp ci dëkk bi fa lañ jàngee ku fa jàngee wu tam jàngee nga ci ku fa jàngee ki koy taxawee di sëriñ alxaaji Mbàkke jaxate ñu ko ñaan mu yàgg fi loolu tuwér ci waa dëkk bi rek la bokk ak yu dul yooyu donte tekkiwul ne waa Tuubaa ñoo fi war a jàngale waaye ñaan na ko mu doon kon dëkkub xam-xam adon ko an tajalahu daara tuqa wal ilmi wa diini wa daara lirtiqa tey jii xam ngeen euh, lii suñ borom def na ci xéwal lool ndax njaboot gi ñu ngi ci góorgóorlu seen seen kem kàttan natt yi nekk ci alxuraan daara yi alxuraan ci biir Touba laa bëgg a wax ci atum bi ñu génn matoon na 1996 ci ay daara maanaam daanaka ñaari junni daara yu manqué tuuti yoo xam ne benn daara yi gouvernement amu ci daara yi wala boog benn ñaar la cee doon kon daara yi ñu jóg rek ngir ngir ngir seen góorgóorlu yu bokk la te li fi nekk ci ay école ëpp na ñaar di dem di wéy kon loolu lu kon loolu it lu mat a bàyyi xel la lu mat a kañ la ndax it dëgg la sëñ bi bëggoon na ko waaye ay jéego mi ngi ci am bu baax a baax ba bi ci mujj am rek daara ji sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha ubbi ci mujj am bi xam ngeen daara alxuraan jafa nekk rek daanaka la muy la ne ciy gone jege na jege na ñaari junni gone Euh, jege na ñaari junni gone yàpp naa ne te euh, lu manqué tuuti xëy na te it euh, daara joo xam ne amul dara amul inscription amul fay weer amul dara maanaam doo def lu indi sa doom mu ñu jàngal ko jàngal ko yar ko ñu ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak weer ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñi ngi góorgóorlu ci bëggu sëriñ bi ci anam googu xam-xam boobu nag bu ko sëriñ bi di wax li ci bëgg mooy ñu mën koo jëfe jëfe googu nag mooy tomb bi ci topp kon mooy xeetu jaamu yàlla li ko sëñ bi ñaan ci biir xasida gi xam ngeen du ko li ci ëpp lu mu koy woowee sax dana ko woowee al amalu bil maalum dana ko woowee lishigaalu bil furudi wa sunan dana ko woowee liqtifaa euh, dina koy woowee ci biir xasida gi moo tax gis nga bi mu ñëwee moom rek dafa sant suñu borom alhamdulilahi alhamdulilahi alkarimi zilminan ala shigaali bi furudin wa sunan shakartuhu li annahu qad saaqani li watanin bihi nafa maaqani sant naa suñu borom kat moom mooy borom xéewal yi bi ma xéewalee ba ma sama yitte yëpp di rek jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom moo mat ba indi ma ci barab bi nga xam ne nag dàqaleel ma ci mboolem lu ma daan gàllankoor mu ñaan suñu borom nag ne ko dëkk bi na nga ko def muy dëkkub ragal yàlla na ko def muy dëkkub diine nanga ko def muy dëkk boo xam ne dañ fi yëkkatikoo jëm ci yow subhanahu wa taala aduka an tajalahu daara tuqa wala ilmi wa diini wa daaral lirtiqa mu amit juróom-ñaari mbir wala ñaari juróom-ñaari mbir maam ñaari mbir ba bi juróom-ñaar laa bëgg a wax maam juróom-ñaari bayit yoo xam ne bayit wu ne da ci ñaan ñaari mbir yu bokkut li may wax di leerut juróom-ñaari bayit yoo xam ne bayit wu ne sëñ bi ñaari mbir yu bokkut la ci ñaan day ñaan lii ñaan lële ba muy juróom-ñaari bayit yu tagaloo yépp ci dëkk bi mu tàmbalee ko ci wa junnatan li saalikin muridi wa junnatan an haatikin maridi maa ngi lay ñaan dëkk bi na ko def muy ndimbal ci képp ku soobu képp ku soobu bépp murid bu soobu ci ci sa yoon wi ja Tuubaa na doon dimbal ci moom foo xam ne dafay mën a jaamoo yàlla wa junnatan an haatikin maridi waaye na doon pakk boo xam ne it dañ ciy dàqee képp koo xam ne nit ku dëng ba ab safaana ko tax a nga gis ne foofu maa xaraf jar bi rek la la sëñ bi soppi junnatan li ak junnatan an kii bi rek lay soppi ne ko wa manfaan li kulli haadin muslimi wa madfaan an kulli an mujrimi na doon njariñ ci képp bépp jullit buy sàkkoo jub waaye na doon luy fekk bépp kàccoor boo xam ne ab a ko tax a jóg nga gis ne foofu man faan li ak madd faan li wa xujjatan liman bi dox fin irtada wa xujjatan ala muxaalifin ala muxaalifin gada na doon xujja xujja li ak xujja ala na doon xujja li maanaam képp koo xam ne ak néew doole jàpp na ko ci wàllu jaamu yàlla na Tuubaa doon dimbal ci moom ba bu fi ñëwee moom mën a def jaamu yàlla ni mu ko bëggee waaye na doon nag pakk boo xam ne wala lay woo xam ne lay woo xam ne bu ëllëgee képp ku dëngaloon bu ñu ko laajee mu ne amutoon fu mu dem ñu ne ko Tuubaa ngi woon nii nga gis ne day wax xujjatan li wa xujjatan ala wa matlaban li taati rahimi wa mahraban min taati rajimi na doon fu ñuy sàkkoo foo xam ne képp ku bëgg a topp yàlla Tuubaa euh, bu fa ñëwee mën koo topp waaye na doon barab boo xam ne képp ku bëgg a daw seytaane bu fa ñëwee mën a mucc wa maskanan li subuli itibaayi wa matrakan li subuli ibtidaai na doon yoon euh, sóobukaay ci képp ku bëgg a topp yàlla waaye na doon it ab bàyyiwaay ci képp ku bëgg a wattandiku lépp luy bidaa ba boo ñëwee Tuubaa jëfe bidaa sax du la yomb nga xam ne dana maskanan li subul ittibaa matrakan li subul ibtidaa ñaari mbir yi dañuy wutee ay safaan di yu safaano lay doon wa maskanan li jalbi kulli xayri wa maskanan li dafai kulli dayri na doon barab boo xam ne kat dañ ciy ñoddee wépp yiw barab boo xam ne dañ ci dàqee bépp safaan wa sababan li fatxi xayril bi wa sababan li dafi dayril bi na doon rek foo xam ne sabab lay doon ci ñoddi wépp xéewal yu ñuy sént yu ñëw gut waaye doon boo xam ne dañ ci dàq bépp lor boo xam ne day aybal pas-pasu jullit bi nga gis ne kon fii am na juróom fukki mbir ak ñeent yu fi sëñ bi ñaan yoo xam ne ci anam gu yéeme la ko ñaanee bayit wu ne da ciy jël ñaari mbir yu bokkut euh, ñaan ko ñaan ko lii ñaan ko lële di jël ci xulufu jar yi ndax xam nga ne ci arab xarfu jar yi day soppi waxin yi maanaam da nga naan raxiba fii mu firi bëgg na nga ne raxiba an mu firi bañ na gis nga ni muy sole ci benn araf rek ngay dugal moo tax sëñ bi nag fii moom xarañe na ko lool donte lépp la xarañee sax nag lépp lu baax da ko xarañe moom ñaan na ko tamit dëkk bi suñ borom def ko muy dëkk boo xam ne dañuy dañ fii taxawal julli juróom saa su ne wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim as-salawaati al-xamsa da'ban yaa xakiim na nga fi taxawal mbooloo moo xam ne dañuy taxawal julli juróom ba faw nag euh, yaa xakim yow mi nga xam ne yaay aji xereñ ji loolu xam ngeen ni ku fi jamono corona bi fekkoon rek xam ngeen ne lii moom suñ borom nangu na ñaan gi tolloon nañ jamono joo xam ne ci Sénégal kenn ñi mawutu dem ci jenn jàkk te jumaa ji moom mooy jumaa joo xam ne mës a tëj benn yoon ba ci àjjuma mësuñu ko tëj loolu di wane ne kon ñaan gi suñu ñaanoon fii suñu borom defal na ko ci baax te lii mu ñaanoon ci mbooloo mu fi taxawal julli juróom lii mu ñaanoon ci mbooloo mu fi taxaw julli juróom it loolu suñu borom defal na ko ci feex ndax ban ba bi ma ciy mujjee xam dara ci jamono yi mois de février li nekkoon ci Touba ci ay jumaa mën na téeméer fukk ci biir dëkk bi ci ay yoo xam ne yu ñu jullee ajjuma la bokkut ak jàkka fonk na jaamu yàlla jooyu waaye gis nga na it niñ ci taxawaatee waxoon ne ko euh, na ko ci fukki yoon yu fukki barab yi bokkut di ko ñaan na doon barab boo xam ne dañ fiy jëfee na wa hablana axza allazi aataana wa tarkama an fiilihi nahaana xata yakuna kulluna fi lxarakaat muqtadiyan bi sunnatin wa sakanaat maa ngi lay ñaankat suñu borom nga defal ñu dëkk bi nang ñu dimbale ba mbooleem li nga xam ne yonent bi saa ko ñu sax ci mbooleem lu mu tere ñu wattandiku ko sori ko te sax ci di roy sunna ci biir ak ci biti gis ngeen loolu lim ci ñaan bari nga xam ne min ka aru mul yawma an akuna mimman abaw li gayrika rukuna wa an utiaka bi nahjil mustafa sunnatihi lbayda ay yaa man istafa ñaan ko ne ko tubaa gi na ko defal muy dëkk boo xam ne dañ fiy jëfee sunna dëkk boo xam ne dëkkub sunna lay doon wajaal binaaya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi wajaalhu daban maskana tibaai li sunnatin la maskana ibtidaai na doon dëkk boo xam ne dañuy fonk sunna dañuy jëfee sunna di roy yonent bi sallallahu alayhi te lépp lu jëm ci bidaa ñu sori ko seen kem kàttan loolu kon képp ku dëkk ci dëkk bi it loolu war nga koo bàyyi xel xam ne sëñ bi li mu bëgg dëkk bi mel ko mooy mu doon dëkkub diine dëkk boo xam ne dañuy topp diine seen kem kattan wa daara ixlaasin wa sixin wa wara wa daara sunnatin wa man jan min bidaa ba képp ku bëgg mucc ci ay bidaa sax bu ñëwee Tuubaa mucc ci ndax du ko fi gis waaye bi mu xamee ne loolu ngir mu amit faaw mu am mbooloo moo xam ne dañuy taxaw nit ñi ci di leen jàngal di leen yee di leen di jàpp seeni loxo ci la ko ñaanee na ko ko fi defal kuréel yoo xam ne ñoom li ñuy wax al amru bil maaruf ak an ñoo koy taxawee wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bil haadil wa fi na nga ma na nga ma wutal ay defarkat ci ñu ñu bokk ci sama waa kër te ne ci sama waa kër ne ci sama dëkk bi te nag na nga leen fi saxal bu ñëwee maa ngi la koy ñaan nag ci barke Yonent sallallahu mi nga xam ne mooy ku jub mooy ku maandu ki lu tax mu tànn ñaari tur yooyu nag képp ku yëngu ci loolu war nga cee bàyyi xel lu tax Yonent sallallahu alayhi bi mu koy melal mu melal ko ci ñaar yooyu mooy maandu ak njub mooy taxawaayu jubal boobu noonu képp ku ko bëgg ci dëkk bi ñaar yooyu mënta ñàkk ci yow mooy maandu ak njub jàpp naa ne bayit wi sax daayira bi Moukhaddamatoul Khidma moom lañu def ñoom muy seen bàkk euh, muy lu am solo loo xam ne daayira bii suñ mbokki Baay Faal yi yi ñu taxaw yooyu yëpp ci lii la dugg sëriñ bi moo ñaanoon ci dëkk bi suñ borom defal ko fi ñoo xam ne ñooy taxawu njaboot ci di leen fàttali di leen fàttali li nga xam ne moo taxoon sëñ bi sañ ci dëkk bi muy jëf joo xam ne képp ku ci ne murid yëpp nga ci nekkal kon murid yëpp ñoo la ameel cant ñoo la ameel ngërëm jaamu yàlla yi yépp nag li ci sëriñ bi bëgg mooy mu jural ñu ay jikko yu rafet jikko yooyu sëñ bi tudd na ko juróom juróom-ñaar fukki yoon yu bokkut ci biir xasida gi ma njëkkanteeg waxtu yu tuuti rek tudd na ko juróom-ñaar fukki astaghfirullah juróom-ñaar fukki yoon waaw yu bokkut ci biir ci biir xasida gi ndax xam ne jikko yooyu mooy meññeet mi nga xam ne mooy juddoo ci jaamu yàlla xam ngeen bu ngeen xoolee jaamu yàlla yépp wala ponk yi lislaam yi gën a mag suñ borom bu mu ci tudd rek jikko la ciy teg bu ngeen xoolee ci julli inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar bu dee koor ñu ne la laallakum tattaquun azaka ñu ne xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha aj lu demee ni ki noonu wala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xaj xeeti jaamu yàlla yooyu yëpp suñ borom bu mu ci tudd rek lam cay teg ci mujj ga mooy li muy jural jullit bi mooy mu defar jikkoom mooy mu defar jikkoom innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yéen sallallahu alayhi wasallam dañ maa fay indi rek ngir ma mott li jikko yu rafet yi nga xam ne ku fi mas a jaar ci loolu nga doon woote moo tax sëriñ bi di ñaan suñu borom dëkk bi ne ko na nga ko def muy dëkk boo xam ne dëkkum jéggal la dëkkum njub dëkkub xam yàlla dëkkub làq ngërëmu suñu borom subhaanahu wa taala loolu nag te it nga def ko muy dëkkub sunna dëkk boo xam ne dañ ci muccee ci mbooleem bidaay loolu nag munta am lu dul ñi fi nekk jikko woo jikko yi mooy wa daara ixlaasin wa sidqin wa wara mooy nañ ñi fi nekk nañ doon ay nit ñu sellal nit ñu dëggu nit ñoo xam ne ñu ragal yàlla la ñuy doon ñu jub la ñuy doon waaye it xam gim xam ne am na ay jikko yu baaxut yoo xam ne xeet wu mu dugg jaxase ko yàq ko ci la ñaan suñu borom ne ko lépp luy jikko yu baaxut nanga ma ko dàqal ci dëkk bi wal tax mi daari anil fujuuri wal fisqi wal baatili fi duhuri maa ngi lay ñaan sama dëkk bi kat nga musal ma ci mbooleem lu di lépp lu ak ak kàccoor bu mu fi am lépp loo xam ne ak ñàkk njub la wala muy ay neen ci jamono yépp wala wa najjinaa bi jaahihi min daawa wal takfi anna kaziban wal ahwa wal fi na hawa wa ma laa yaani bika wa bika daban agninaa agninaa yaa mugni agninaa yaa mugni wa bika daban agninaa yaa mugni ne ko kat maa ngi lay ñaan ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi lépp lu jëm ci ñàkk a dëggu lépp lu jëm ci wax na su dul noonu wala ak neen na nga ma ci musal te euh, fegal ñu ko ñaan ko dëkk bi kon muy dëkkum jub muy wajal binaa iya binaa al ihtida wala takfi an ni kayda kulla zi i'tida na doon dëkkum jub dëkk boo xam ne it képp ku ab safaan tax a jóg képp ku ab tooñkat da nga ne koy dàqal ba bu mu fi agsi ne ko rek lépp loo xam ne du jub rek saa bu nee toq ci dëkk bi rek nanga ma ko dàqal mu dem wala tasrifan jumlata ma yufsidu an yadi wa an daari sarian xaysu an saa bu nee ci dëkk bi rek maa ngi lay ñaan nga faxasal ma ko mu daal di génn ci saa si ba ci soxna yi sax sëriñ bi fàttewu leen ci biir matlabul fawzayni mooy taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am ci biir dëkk bi muy wa zawjatan saalihatan tuinu ala tuqa wal birri yaa muinu mooy soxna yoo xam ne soxna yu baax la ñu doon yu jub yoo xam ne dañuy dimbalee ci ñaar yi ci ragal yàlla ak njub ne ko yaa muinu yow mi nga xam ne yaay yaay dimbalekat bi yow suñu borom subhanahu wa taala nga gis ne kon ci bayit woowu sëñ bi junj na ci soxna yi taxawaay bi ñu war a am ci tasaare ak mbaax ak tasaare ay jikko rafet ci biir askan wi loolu nag mënuñu ko am lu dul ñu nekk saaliha maanaam salaax am ci ñoom ndax wa zawjatan saalihatan te loolu nag ku wax loolu wax ne jàngal jigéen ñi waajur yi kon war nañ ca taxaw baax mooy rek wala nisaa yi nasibun min at-ta'allumi jigéen ñi it walas na leen jàngal ngir ñu xam te loolu it sëriñ bi moom jëmbaloon na ko bi mu nekkee fii ci barab bi ndax xam ngeen soxna Aminata Lo di waajuru Cheikh Mouhamadou Moustapha wax nañ bi mu fiy jógee sëñ bi nee na benn dars benn dars ko dese woon ci risaala ngir mu jeexal ko te sëñ bee jàngal boppam nga xam ne kon taxawaay boobu it jigéen ñi ne ci dëkk bi seenum njàng waajur yi war nañ cee def seen kem kàttan ngir ñu mën a taxaw taxawaay bi nga xam ne moom lañuy ñuy séentu ci ñoom kon yooyu it ay yu ma doon joxe la ci ay misaal ci jikko yi nga xam ne sëriñ bi ñaan na ko euh, ci sëñ bi ci suñ borom defal ko ko ci biir dëkk bi waaye nag ni mu ñaanalee dëkk bi it noonu la ñaanalee ñi nga xam ne ñooy waa dëkk bi te tomb boobu rek moom laa ci tëjee ci waxtaan wi incha allahu taala kon bi ci ñetti anam yu bokkut jikko yi mu bëgg ci ñoom dëkkandoo yi nga xam ne ñoom la fi bëgg ak ñaan yi nga xam ne moom la leen ñaanal bu ngeen xoolee ci biir xasida gi ci njëlbeen gi sëñ bi juñ la fi loo xam ne bëgg na képp ku bokk ci moom nga fexe ba liy sa ndono liñ la xamee nga di ko sàmm sa kem kàttan gis ngeen ci njëlbeen gi muy wax suñu borom di wàcce boppam fa juttali fa juttali yowma bi xayri minani na ni iqtifaa'i sunani min baadi ma kaadamtu daaxu naasi yudxulu nii fii shalakil xannaasi wa kibtu lil amdaaxi wal itraayi azhadu fi taalifi wal iqraayi wa fi taalumi wa fi taalumi wa fi taalumi wa fi wa fi taalumi wa fi taalimi wa fi shiraali bi hudal maalumi wala wa fi shiraalin bi hudal maalumi ne ko kat eh, yaa ngi ma womat indi ma ci dëkk bii muy xéewal yi gën a mag nga jox ma xéewal yi womat ma fi ba ma mën fee jaamu suñu borom eh, roy yonent bi saa sallam jaar ci sunnaam ci bi nga xamee ne tuuti rek tuuti rek ma wa ma jàdd ndax tagg yu bari yi ma nit ñi doon tagg taxoon na ba mujj gi tuuti rek sax wàllu jàng ak jàngale ma xaw koo ma xaw koo néewal tuuti ne ko euh, bi nga ma dimbalee ba indi ma fii nag ci laa ci laa ci laa bàyyiwaat xel lool kon maa ngi la ci sant bu baax nga xam ne kon junj na ci ne xéewali lu mu bari bari ci dëkk bi it waruñu ko fàtte waruñoo fàtte li nga xam ne moo ñu fi indi bañu fi te mooy la mu ba muy sañ ba muy sañ ci dëkk bi mooy li aabudaka fiihima mooy dama fee ñëw ngir yaamu si suñu borom subhanahu wa xéewal yi mu doon ñaan ci ay wërsëg ci ay xéewal yi ma tudd léegi yépp dafa bëggoon ne mu nekk matiya mu nekk waruwaay rek bu nit ki di jaar ngir jëm ëllëg ci suñu borom subhanahu wa taala moo tax saa buy ñaan xéewal yi ci biir da ngay gis da koy lëkkaleeg ëllëg bi wajalhu rabbi minanan muajjala wajalhu rabbi minanan muajjala jaalibatan li minanin muajjala nag ma ko defal muy xéewal yu teew yoo xam ne day day dañuy yóbbu ci yeneen xéewal yu ko gën a mag yu ëllëg wax nañ ne Cheikh Ibra Fall junjoon na lu mel noonu wane ne kat euh, ne ah, doom bu ñu demee ba ca kanam ndaw ñi danañ doxee sañ-sañ yoon wi te duñ jëf-jëf yoon wi danañ doxee sañ-sañ yoon wi danañ wéye sañ-sañ yoon wi te duñ jëf-jëf yoon wi ne ginaar gi nag dina mës a yëlbu ne te yëlbu ci digg mbànding la yëlboo ne te bu boobaa cuuj bu cuuj bu rot ceeli këf la cuuj bu rot ceeli këf la loolu nag xawma jan jamono la waaye sorewul jamono ji ñu nekk moom am na yooyu dégg ci njaboot yi yoo xam ne ñi nga xam ne da seeni maam dañoo jaayoon luñ am ngir défendre yoon yi ñooñu tey ñooy def yoo xam ne mën naa tas yoon yi bu doon luy tas moo tax xawma kañ la ceel yi wadd moom waaye kañ la cuuj yi wadd waaye xam naa ne moom soreetuñ ko ndem tàmbaliwut am yàlla ñu yàlla suturaal bañ bañ see bokk rek waaye bokk na ci kon lim leen ñaan li muy ñaanal waa li muy jikko yi mu bëgg waa dëkk bi am ko mooy ñu fexe ba sàmm seen ndono fexe ba li nga xam ne moom la leen xamee ñu fexe ba duñ soppeeku waaye it ñu am yërmande ci mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ñuy dundal moo xam jullit lañ moo xam ay yëfar lañ sëñ baa ngi koy ñaan ci xasida gi waxi azaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kaafiran bi zaynaba samay lor maa ngi lay ñaan nga musal ci samay jege ñaaleeg ñi nga xam ne bokkuma ak ñoom dara ñi nga xam ne ay jullit lañ ak ñi nga xam ne sax lu duñu ay jullit na nga leen musal ci samay lor ba bu ñu loroo ci man wal takfi ni aza jamia al alamin wal takfihim azaya yaa rabbi amin na nga ma musal ci lori mbindeef yépp te ñoom ñépp it na nga ma nanga nga leen musal ci samay lor ki nga xam ne moo dëkk ci dëkk bi loolu la sëriñ bëgg mu def ko mooy moom nay fexe ba jamono ju ne nay xool lum mu nit ñi waaye bu mu xool dara luy jóge nit ñi jamono ju ne nay fexe ba bu kenn loroo ci moom fi mu ne loolu ñi dëkk Touba ñépp bu ñu amee gisin woowu am taxawaay boobu am doxin boobu euh, waxuma Touba waaye yeneen dëkk yi sax dañuy mën di roy ci Touba ci seen doxalin ak ci seen jëflante waaye bu rafet ci koo xam ne sëñ bi junj na loolu ci xasida gi képp koo xam ne bokk leen jubluwaay wala réeroo ngeen nga rafetal seen sa jëflante sa diggante ak moom wa kullu man chatamani aw laama fa hab lahu tawbata wa stislaama fa kullu man asaa zannahu biya falyaqallib qalbahu ya rabbiya képp koo xam ne daf ma ŋàññ wala mu wax ma wax ju ñaaw maa ngi lay ñaan nga may ko nga def ci xolam mu tuub euh, te dellu ginnaaw rek tege ci yoon mi a jaar képp koo xam ne it ñaaw na njort ci man maa ngi lay ñaan nga gindi ko nga gindi ko te te yéwe na lépp rek fi mu ne loolu it gisin wu xóot la ci at mu xaalif muxaalif maanaam ki nga xam ne da ngeen a bokk da ngeen a bokkut gisin nga àgg ci di ko ñaanal suñu borom gindi ko te mënoon na koo ñaan leneen mënoon naa ñaan yàlla ab safaan wala yooyu waaye moom waxoon na ne laa yadon ala zalimin te loolu ca la nekk te mosu ca jóg kon ki ne ci dëkk bi it jëflanteeg ki nga xam ne bokkuñu gisin lu mu war a bàyyi xel la wala tusbitan fiihi jamaatan tuqim asalawaati alxamsa daban yaa xakim ku nekk Touba fonk julli juróomi it ñu xam ne jumaa yi li muy bari bari ngir ñu di ci jullee moom lañ ko moom moom moo tax ñu def ko fi ñu doon ay nit ñu tabee ñoo xam ne alal du leen du leen fëkk alal du tax ñu fàtte si li leen tax a jóg wajaal yamini ka saxaabin fii saxaa maymunatin fii shiddatin wa fii raxaa sëñ bi yi muy wax ne moom la mel dafa bëgg ñu roy ci moom moo tax mu koy wax nekkukat kat na nga def ma doon koo xam ne damay tabe ba raw sax euh, aw niir rek lépp ci jamono ju ne waaye ni ma ko waxee woon sànq junj ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu commerce ñu góorgóorlu seen kem kàttan ci lépp lu ñu def mu dëppoog mu dëppoog jàngale lislaam yi wa risqaha jaal arseebal xalaali fil usri wal yusri ala mooy lépp loo xam ne jëflante bu jëm ci wàllu riba wala bu tegewu ci li lislaam daganal ñi nga xam ne ñoo fi yëngu di fi yaxantu it war nañ cee góorgóorlu seen kem kattan ci di ko wattandiku xam ne maanaam quwa iqtisaadiya euh, maanaam économie bi nekk Touba warta doon rek jumtuwaay boo xam ne mbirum àdduna rek ci lañ ko yemale waaye ki nekk commerçant bi nekk Touba war naa wute lool ak commerçant bi ne feneen ndax moom fii mu ne lu góor-góor lu mu néew-néew rek maanaam ñi fi yëngu ñëpp xam nañ ne barkeb sëñ bi moom fekk si na leen ci li ñu yëngu loolu nag ni ko mën a delloo njukkal rek mooy ñu fexe ba tënku ci diine ndax loolu dong moo ko taxoon a bàyyi. mbàkke bawol gi nga xam ne xajoon na fa te ay mbokkam ma fa nekkoon waaye li ko taxoon a ñëw fii mooy fu mu mën a rawalee pas-pasam fu mu mën a rawale pas-pas ñi àndoon ak moom fu mu mën a daw nit ñi ak li ci loxoy nit ñi waaye ñaan suñ boromit mu indil ko ay ay ay dëkkandoo yoo xam ne dëkkandoo yu jub la ñu doon euh, waliye suq xayra xalaalin tayibi wa xayra jiiraanin bi xaqi tayibi ne ko nag képp koo xam ne junj ko ñoo xam ne bëggul ñu nekk ci dëkk bi moom ñii moom sëñ bi dafa dafa junj ne bëggul ñu nekk ci dëkk bi wal takfi anni kulla shaxsin lam yurid wajhaka fasrifu sarian is yarid képp koo xam ne taxoo koo jóg sàkku sa ngërëm taxu koo jóg saa bu ne toq ci dëkk bi dàqal ma ko mu jóge fi xam ngeen lii sëñ bi wax na ko nii ci matlabul fawzayni waaye junjoon na ko junjoon na ko ci ca xissa boobu sëñ Basiru nettali ne am na bis mu woo ko ñu wax sëñ Abdoulahi Jaw ne ko damal Daaru Salaam boo demee ña fa ne nee leen képp koo xam ne yàlla dong ko képp koo xam ne àddunaa ko taxoon a jóg na dem képp koo xam ne àllaaxiraa ko taxoon a jóg maanaam képp koo xam ne àdduna kese taxoon mu topp ma mën naa dem yeewi naa ko képp koo xam ne àllaaxira kese taxoon mu topp ma mën naa dem yeewi naa ko koo xam ne àdduna ak àllaaxira ñoo taxoon mu topp ma na dem yeewi naa ko képp koo xam ne yàlla dong nga tax nag mën naa toog moo tax fii mu ñaan ko ne ko képp koo xam ne sa jëmm képp taxu koo jóg maa ngi lay ñaan nga dàqal ma ko boobu mu ñëw fii ci dëkk bi wala takfi anni kulla shaxsin lam yurid wajhaka fasrifu sarian is yarid wax ko ne ko it képp kuy ab lépp képp kuy ab yàqkat na ko ko dàqal ci dëkk bi képp kuy ab defarkat na ko saxal ci dëkk bi wal tasrifan jumlata ma yufsidu an yadi wa an daari sarian xaysu an wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabitanhu bil haadil wa fi nga xam ne ki ci ko wal tasrifan la koy wax kii mu ne ko wal tudxil kii mu ne ko xaysu an maanaam kii na ko fi saxal kii moom na ko daal dàq ci saa si mu dem ñaanal na it waa tubaa ay ñaan yu bari xam ngeen sëñ bi ñaan na ci biir xasida gi ne ko ne suñ borom képp ku dëkk ci dëkk bi maa ngi la ñaan bu ko topp ko ay bàkkaar waxfir li kulli man biha xad sakana walilazi laha li xayrin rakina képp koo xam ne dafa dëkk wala mu ñëw fa ngir aw yiw maa ngi lay ñaan nga jéggal ko ay bàkkaaram ñaan ko it ne ko maa ngi ku ne ci dëkk bi maa ngi la ñaan nga musal ñu wa najji nii rabbi ah, wa ahla daari huna wa fi gadi min al akdaari àdduna ak àlaxira maa ngi la ñaan nga musal ñu ba ñu mucc maag waa dëkk bi yépp yaa man ala an zawjatin wa an walad xot ni wa xot jamia ahli ahli zalbalat yooyu ci sëñ bi wax bari na lool xot ni an cheytaani yaa jalilu wa maskani wa kullama aulu mujj sax yim jël dénk ko suñu borom subhanahu wa taala mu boole ci dëkk bi ak waa dëkk bi nafsi wa diini summa ahli wal wa maskani laka wadiatun abad yim jël na ko suñu borom dénk naa la ko ba faw abat ba faw maanaam abat mën naa firi abadan ba faw man naa firit xëy na duniyaa muy daal gi baa gi muy bar sax alif gi muy muy muy xëy na abat sax loolu rek lay lay mën a firi bu dul loolu tamit waaye wax ko ne ko daal yooyu yëpp dénk naa la ko teg naa ko sa loxo yow suñu borom euh, loolu bi mu ko koy dénk booleel na ko ci dëkk bi booleel na ko ci waa dëkk bi xam ne it ñi fi dëkk faaw ay rëcc rëcc du leen mën a ñàkk tax mu ñaan suñu borom ne ko maa ngi lay ñaan saa bu ñu defee naka sudul noonu it nanga ñu ko bu leen ko topp wala tuaxisna bi suuil adabi wa bi tajarrui wa kusri laayi bi fa innana wa in tajarrana fala narju siwaaka kun lana tafaddula xis naa bi kasratil fudul fi zahirin wa batinin wa bil ghuful képp ko saa boo xamee ne kat def nañ naka sulu noonu wala ñu mel ne ku xotti rëdd yi nga xam ne jéggi rëdd yi nga xam ne rëdd nga ko yit xamal ne ak ndoomu aadama rek moo jàpp waa dëkk bi waaye euh, amuñ kenn ku ñu yaakaar ku dul yow kon yow yàlla na nga jëflante ñoom ci sa ma de yàlla na nga jëflante ñoom ci sa mbaax te ba ñeena topp ci li nga xam ne muy la ko waxoon ca euh, matlabu shifaay euh, ci ne ko rek wala humu habil lazi laa yanfa'uk maanaam yërmande googu ñoom bu ñu ci jotut seen dara lu baax te yow boo leen ko joxee yow du la wàññi dara ñaan ko ne ko it képp ku koy liggéeyal ci dëkk bi wala mu ko fi ziyaare si ñaan na suñu borom musal ko jéggal ko wa kullu man xadama ni aw zaara fa najjihi waghfir lahu aw zaara ñaan ko it mboolem yi ñuy taxawal ci dëkk bi képp ku ci góor góorlu na ko na ko na ko jéggal ay bàkkaaram képp ku ci jàpp yaa laafi al aswaai wal akdaari bil mustafa alfan kullu suu an li man banaw binaa ahal rafi waxfir li man amarahum bi jamia wali jamia man aanahum ala binaa ahal lazi bi fadlika atala nga xam ne jumaa ji feeñ na ci waaye ñaan guy wéy la ñaan guy wéy la ndax ma ngi ko déparé woon ca kër gañ doon tabax jumaa ji feeñ na ci waaye lu wéy la bépp projet bu ñu yëkkati ci dëkk bi rek ku ci jàpp rek dugg nga ci biir ñaan googu waaye it ñaan na suñu borom subhanahu wa mu defal ko mu mu musal mboolem ñi nga xam ne ñoo aju ci moom ak mboolem jullit ñëpp rek ak fépp fu ñu mën a ne wasrif azaban naari an jumlati man bi yataallaqu min abnai zaman wa jumlati l ixwaani min aqaaribi fi tiini aw fi diini wala bi maa ngi lay ñaan nga musal ci sawara mboolem ñi nga xam ne dañoo aju ci man ak jamono ju ñu mën a nekk mboolem ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki jullit moo xam suñuy jegeñaale lañ ci wàllu deret wala bokkuñu ci wàllu deret sax wala suñu mbokk soree na ñoom ñëpp maa ngi lay ñaan ak fu ñu mën ne nga musal leen ci sawara kon yooyu yëpp nag mooy li nga xam ne kilifa yi moom lañ xam ba seen kem kàttan ñu taxaw ci doon sàmm war mooy dëkk bi Cheikh Mouhamadou Mountakha xam ngeen daaw ci tabaski gi am na waxtaan wu am solo mu def ci di ci juñ yu waa dëkk bi taxawaay bi ñu war a am ci biir dëkk bi jund ci ñetti mbir bu njëkk bi mooy ñaari mbir yoo xam ne yu ñu war a bàyyi xel la ci képp ku dëkk ci dëkk bi te mooy sàmm suñu diine ak sà ak sàmm suñu taalibe ñaareel la wax sàmm suñu diine ak sàmm suñu taalibe ndax yooyu mooy base bi maanaam diine ji moo ñu dugal ci lislaam taalibe gi moo ñu boole ak sëriñ bi kon loolu lépp lu mu laaj ci jikko ak melokaan ñu sàmm ko ne ñaareel bi mooy ñaari warteef yoo xam ne képp ku dëkk ci dëkk bi war na ko bàyyi xel te mooy sàmm war may sëriñ bi ak sàmm war may dëkk bi ne ñetteel bi nag mooy ñaari xéewal wala ñaari tawféex yoo xam ne ñu dëkk ci dëkk bi am nañ ko te mooy tawféexi aju ci sëriñ bi ak tawféex yi dëkk ak sëriñ bi te xam ngeen sëriñ bi dëkk ak moom rek bari na lu mu ñaanal ci ay dëkkandoom ah, gis ngeen bayit woowu ñu bind ci buntu kër gu mag gi rek duur yi wa maa lixtira min jiraani naajiyatun min jaari bil xusraani ne mboolem ñi nga xam ne ñoo ay dëkkandoom ay dëkkandoom dëgg-dëgg ñooñu suñ borom musal na leen ci ci ci sawara ngir loolu nag moo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha dénk suñ bokki Baay Faal li mu leen dénk ñoom ñu di ci taxaw taxawaay bu rafet li mu leen dénkit weesuwul rek fàttali nit ñi li taxoon sëñ bi sañ ci dëkk bi loolu nag taxawaay bi ñu ci war a am ñun ñëpp rek mooy kenn ku ne ci dëkk bi nga gëm ne yow la ko sëñ bi digal yow yaa war a yaa war a yaa ko war a jot li ko ko dendal loolu bu ñu ko defee fi ne du ñu séentu sax kenn di ñëw di ñu jubbanti wala kenn di ñëw di fàttali maanaam ndigal li kenn ku nekk rek na gëm ne moom lañ ko digal moo ko war a taxawee moo ci war a jiitu ñu xam ne digal lu lu individuel la doog a collectif maanaam lu kenn ku nekk war a def la mbooloo mi doog ko àndaat def ñu xam ne daal kenn wërtanik sax bañ bàyyi faale ñëwoon na leen nii la waaye ku nekk da war a gëm ne digal loolu euh, ñëpp la ko sëriñ bi digal ndax lu baax rek moo tax mu digal ñu ko te loolu ci ñëpp ñëpp ci lañ bokk kon su ma doon tëj rek sëñ Abdou Lahad mel na ne waxtu wi ñu waxoon juróom minute su ma ko defee dina doy bi ci njëkk mooy ku képp ku bëgg xam li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi mën naa dellu ci xasida ak Matlabul Fawzayni loolu moom mooy li wér sëriñ bi li mu bëgg ci dëkk bi ni mu bëgg dëkk bi mel ko ni mu bëgg waa dëkk bi mel ko jikko yi mu bëggul ñu am ko képp ku dellu ci xasida Matlabul Fawzayni dina ko ci fekk ñaareel bi mooy dinañ ci gise it ne sëñ bi li ñuy wax théorie ak pratique day jiital pratique doo ko théoriser wala sax da leen di boole maanaam sëñ bi wute na lool foofu ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo doon yaxal ci dëkk yi ñu bëggoon nga xam ne dañuy dañuy bind ay xalaat noonu rek waaye sëñ bi moom lii bi mu koy bind fekk na sax mu sañ ci dëkk ba noppi gis ngeen masaalikul jinaan gi nga xam ne ñu bari dañuy wax ne mooy gisunu sëñ bi ci tasawuf bi mu koy def na mu woote yoon ba am ay ñaari at ñettaat fekk na li suñu ma Lamine di wax nan am ci ñi mu woote loon ay majaas yëpp am ci ñu ne ñu nekk Mbàkke di def ay karamaat ay kii yu mu doog nga nekk di yaxal euh, li nga xam ne moom la gis ci ci ci ci tasawuf xoqal bu kaaw bi mu koy bind mi ngi fii ci Tuubaa fekk na mu seexal ñu dul jeex li ñu dul jeex loolu day wane nekkoon kon sëñ bi du koy toog noonu di yaxal rek waaye day li muy jëf dafa gën a fés li muy wax waaye it mënees na ca jàngate ne xasida gi di Matlabul Fawzayni discours bi ci sëñ bi def ñaari wàllaam bu dee diggante sëriñ bi ak boromam da ko ciy ñaan ak di ko sant waaye bu dee diggante sëriñ bi ak njaboot gi nag da leen ciy digal ay ndigal yoo xam ne dañ ko war a jël daf ko fay ngir mën a jubbanti dëkk bi ba faaw waaye it xam ngeen ne dëkk bi sëñ bi li mu koy bëgg bëgg li mu koy fonk-fonk juróom-ñaari at rek la fi ne juróom-ñaari at rek la ne ci dëkk bi mu fi génnee duggaatu fi lu dul keroog bi muy ñibbise waaye danañ ci xamee ne bu ñu ko génnewutoon dëkk bi ak génn gi li ci li ci juddoo kon tey jii Sénégal dana àgg fu sore sore sore sori ci mbaax ci njub ci diine Sénégal bu fekkoon Sëñ Tuubaa génne wuñ ko Tuubaa programme bi mu tegoon mu wéy ci te dara gàllankooru ko kon heure bii moom Sénégal leneen la ñuy wax ci wàllu diine wàllu ko ndax anam bi mu ko doon defee it da ko ko doon déconcentré da doon décentralisé ndax xëy na Tuubaa la nekk di tarbiya waaye comme tarbiya ba gis ne mel nga ni ni mu bëgg ni mu bëgg mu la mboot yebal la ne la demal dellu fa nga jóge woon boo demee ba dëkk ba nga dëkkoon doo dugg ci dëkk bi da dem ba jub leen ci wet gi waaye diir bu gàtt nga fay def ñëpp fàq si ñoo fekk si la ndax li ngay duñ ko mën a muñ loolu bu ñu ko defoon diggante bu gàtt dëkk bi day mujj toj moo tax gis ngeen angoo xaw ma tubaab boobu ñëwoon doon def recherche ci siñ bi bokk na ca rapport bi mu bindoon ne Ahmadou Bamba mi ñu gis daal buñ ci jugut yeneen Bamba lay créé ndax day mel ni siñ bi ñëwutoon rek rek ngir defar nit ñi waaye da defar nit ñi ak leneen moo tax bi mu ne mu defar ñu defar nit ñi moom mu wéy ci ab liggéeyam ndax liggéey bu mag bii mu liggéey sanc na tubaab ba jóge fi doo ko dem liggéey kon am na leneen lu mu doon def waaye it waxtaan wi jàng sa ci jàngate yi ne tubaab yi wax dëgg wax dëgg gàllankoor nañ lool liggéeyu sëriñ bi nag lool lool lool lool sax li sëñ bi bëggoon moom moom tubaab yi wax dëgg gàllankoor nañ ko ci lu bare bare bare bari moo tax mujj gi xam ngeen daan na wax ne bokk na ci sama sama cet ñàkk a mën a toog tubaab dafa jàngale alxuraan ak dafa jàng ak dafa yare ndax xam na ni génne gi ñu ko génne moom yàq na lu bari ci gisin mu amoon ak projet bi nga xam ne moom la amoon ci yar nit ñi donte suñ borom fay nag ku ci geneen anam nag kon yooyu yëpp yu ñu war a bàyyi xel la taxawaay yooyu nag ngir ñu mën koo taxaw ñu dëkk ci dëkk bi gi ñu mën a taxaw li leen ci war faaw ñu bàyyi xel lii nga xam ne moom la sëriñ bi wax ci ay bëgg-bëgg yoo xam ne moom la wax ne moom la bëgg ci dëkk bi te mu nekk ci biir Matlabul Fawzayni waaye faaw it kenn ku nekk ci dëkk bi gëm ne lii maanaam ndigalul kenn la kenn bu kenn gëm ne rek waa maam ci misaal jumaa ji waa Moukhaddamatoul Khidma ñoo koy taxaw ñoo ko war a jubbanti waaye ku ñëw ci jumaa ji sart yi ñu fi teg rek mën nga cee jaar da nga leen dimbale ñoom ci taxawaay bi ñu war a am tey di nga tënku ci ndigal li naka noonu Baay faa li nga xam ne ñoom lañ euh, taxawloo ci dëkk bi ak beneen kuréel boo xam ne rek am na fu ko sëriñ bi liggéeyloo kenn ku nekk ku ne ci dëkk bi daa war a gëm ne moom ndigal li ci moom la déparé waaye it mboolem nga xam ne am na fi ak doole ji nga xam ne am na ci yoon wi war nañ cee xalaat suñ kem kàttan ngir rek lépp lu mën a jëmmal dëkk bi ni ko sëriñ bi bëggee moo xam ci wàllu njàng la moo xam ci wàllu paj la moo xam ci wàllu sécurité la moo xam ci wàllu euh, yee nit ñi surtout loolu sax surtout loolu ndax tubaa ni mu demee léegi ci wàllu démographie ñi ñëw di sanc si ku ñëw day indaale jikkoom indi yaram bu ñëwee nag mm, mën naa bañ a amee jikk li ñuy woowee jikkoy waa Touba waaye dañoo war a xam ne rek euh, lislaam diine jàngale la diine fàttali la kon wala ñu wala sas naa fexe jàkka yee kilifa yee ku nekk gox bam ne mu def kem kàttanam ci di di di di yee mbooloo mi di leen fàttali li ñu fi indi woon tey ak ëllëg ba ñu fi te mooy sàkku ngërëmu suñu borom subhanahu wa taala euh, loolu nag moom la kilifa yi xam ba Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadou taxaa ñoom ñëpp ak kilifa yoon yëpp kenn ku nekk kem kàttanam euh, def na ci lam man euh, ñu ñaan suñu borom mu fay leen yiwu bari ba tey jii doon dëkk bi nga xam ne dëkk bu lislaam di ndamoo la dëkk bu lislaam di tiitaroo la dëkk bu lislaam di di di di di di di di di taaloo la loolu nag euh, li leen ko may rek mooy yii sëriñ bi waxoon ne moom la bëgg ñu def ci seen kem kàttan euh, am na geneen wet nag gu bokkut ak gii ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi xasida gi am na jaane fikri bu ci ne mooy lii ñu doon wax ci li ci sëñ bi dëxañ ci ay xalaat ak yu demee ni ko doon waaye am na nag beneen jaanib ruuxaani wala jaanib euh, nuuraani wala irfaani bu ci nekk bu gën a xóot boo xam ne jàpp naa ne sax boobu moo taxoon mag ñi fonk dëgg ba daa ko jàng di ko jàngalu am na ñoo xam ne dañ daan wut sax ñu leen koy jàngal gis ngeen Cheikh Mouhamadou Mountakha ndigal li mu ci mujjee joxe ku ko mën a jàng bisu mu wax dëgg la xalaat yi ci la bokk ngir nit ñi xam li ci ne am na meneen mbóot mu ne ci biir nag moo xam ne euh, nañ ko xool rek ñi ko ci xam-xam nañ ko ñi ko ci tamit nañ ko jël durus ko te xam ne am na suñ borom nangu na ko daal ci gàttal Matlabul Fawzayni suñu borom nangu na ko ni mu nangoo lépp lu sëñ bi moo tax euh, yàlla nañu ko sëriñ bi suñ suñ sëriñ bi yàlla nañu ko suñ borom fayal euh, dolli ko ngërëm dolli ko feex li mu bëggoon te daan ci sonn euh, fii bi mu fi ñëw métti woon na lool ci moom mu daj fi lu ne ngir bëggoon a jëmmal diine ak lu ci lu ci aju rek yàlla na ko suñu borom defal ci loolu lu kawe njortam dolli ay mayam dolli ay darajaam dolli ay maqaamam di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér di sant bu baax waa daayira Muxaddamatul Xidma di jéggalu ci kàddu yi xam naa lu ci dëng rek ci man la lu ci jubit ñoom lu jub rek lañ bëggoon ku ko wax maa ngi jéggalu bu baax fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, sëriñ Mamour Mbacke Amdi ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne doon nañu ko defal doon ñu jàngatal ak a faram pàcceel xasida gi nga xam ne mooy la Matlabul Fawzayni muy niñ ko waxe woon ci tàmbali bi léegi gis ngeen ne ñi doon topp waxtaan wi ak ñi fi teew jariñu nañ ci am nañ ci lu kawe njort euh, xasida gi kat sëriñ Mamor indi na ko noo xam ne sax kawe na ni ñu ko xalaate woon ndax jàngat na ko ci ñetti tomb ni mu ko waxe woon ci tàmbali bi ci tomb bu njëkk bii nga xam ne indi na ko ci waxtaan wi ci tàmbali bi muy tënkal nañu tuuba xam nga ne Touba rek doy na sëkk waxtaan ngir waxtaane dëkk bi rek fi ko sëriñ bi tegoon ak ni mu ko faggee woon ak ni ko sunu borom joxe woon nga xam ne dëkk la boo xam ne moom dong moo ko sanc néeg bi mu fi njëkk a def sax moo ko moo ko defal boppam nga xam ne nekk na ci àll bi ab diir bu yàgg kenn xamut fu mu nekk bañ ñi ko doon wër si dañoo ñëw fekk ko fi mu nekk mu làkk fi làkkum ngeer boo xam ne moo ko defal boppam euh, bokki taalibe yi doog a dem indi bagage yi ñëw waaye mu nekk fii ab diir bu yàgg boo xam ne ñi sañoon a laaj ñi ko sañoon laaj ngir xam ci moom li tax mu nekk ci diir bu yàgg bi mu nekk fii biñ ko laajee daf leen a wax jagle yi nga xam ne suñu borom defal na ko ci dëkk bi ak yim ko fi dikk kon nag dëkk la boo xam ne sëriñ bi ci boppam fonkoon na ko lool ba moo ko gënaloon dëkk bu nekk ginnaaw dul fa sangam bee tudd loolu kon mat naa bàyyi xel lool ñaareel tomb bi li taxoon a jóg waxtaan wi dëgg-dëgg muy jàngatal ñu xasida gi di Madabul Fawzayni ni mu ko waxee ci jeexital bi xasida gi barke mi ngi ci ay dénkaane mi ngi ci waaye ay jaaj ji mi ngi ci ak ay waaree mi ngi ci ak laabiire nit ki bëgg a dëkk Tuubaa it mu xam ni mu fiy dëkke mën nañ koo tënk rek ci ñaari bayit ci nga xam ne dana yóbbaale jàngat xasida gi ak tom bu mujj bi mu doon wax muy ñi dëkk ci dëkk bi nan lañu war a dëkk ci dëkk bi wa jannatan li dhalikin muridi wa junnatan han haatikin maridi maanaam ki nga xam ne dafa jub te bëgg lu baax te nekk fi dëkk bi moom àjjana lay doon ci moom loolu ñi fi nekkee lu baax xam nañ te ñu ngi koy dund waaye ab pakk lay doon tamit ci képp koo xam ne da ngaa doon marit nga xam ne da ngaa fas yéene li ñu fiy tere nga di ko def loolu moom su boobaa soo teewluwut jéem a jubbantiku it moom it euh, dana am luy ñëw di la di la fexeel waaye wa man fahan li kulli haadin muslimi waaye wa mad fahan han kulli haadin mujrimi sunu mbokkum taalibe sunu magum taalibe Serigne Cheikh Gueye oustaz Serigne Cheikh Mbacke Serigne Cheikh Awa Balla Gueye mas na dégg mu an bayit woowu li tax mu am solo te mat a jàngat mooy gis màggatum bandim Touba lu jafe la maanaat ñaare màggatum bandim Touba moo xam ne da nga koy xam mu judd ba ba màggate fi lu jafe la ndax bala fee àgg ci yenn at yi rek yetu mat fax wi ñëw jële ko fi kon loolu tax na sëriñ bi di gàttandoo taalibe yi ngir di leen laabiire xam ne sëriñ bi li bëgg ci dëkkam bi mooy am te lim ñaan ci barke bu fi am ñaan ko it ci xéewal ñaan ko ci kaaraange ba ku fi am xéewal sa xéewal ñoŋ ko loolu war naa tax ku fi liggéey ba am xéewal nga bañ a bew ba bañ a ñàkk sàmmoonte ak li fi sëriñ bi bëgg ndax dëkk bu nekk nag wala kër gu nekk la fa borom bëgg mooy la fa war am te sëriñ bi li mu bëgg ñaan ko fi mooy loolu tax na kon dénkaane yi nga xam ne ak daale yi nga xam ne sëriñ bi def na ko ba tax mu sàkk benn kuréel ngir di leen sàmmloo loolu sàkk benn kuréel ngir ñuy sàmm war may Tuubaa mën nañoo wax ne kon képp koo xam ne nekk nga ci dëkk bi am nga responsabilité ci liggéey ci liggéey boobu tàmbalee ko ci sa kër ak ci sa barab ak ci say gox waaye it sëriñ bi ngir xéewal gim la defal ci dëkk bi ak jàmm ak kaaraange gi ci nekk ak coono yi nga xam ne daj na ko ngir ñun kon loolu war naa tax képp kuy dëkk ci dëkk bi nga bàyyi xel loolu kon sëriñ bi dafa mel ne indi nga ay jàngat yu wuute ci bayit yoo xam ne sëriñ bi def na ko surtout rawatina ni mu dénkaanee niñ fiy nekke kon mbokk yi waxtaan wu mat a mat a teewlu mi ngi nii sëriñ Mamor doon ko waxtaan képp koo xam ne daal yaa ngi ci dëkk bi war ngaa bàyyi xel tomb bi ca di ko jàngat di ko déglu saa su nekk waaye nga war a fas ne xam Matlabul Fawzayni bi mu doon jàngat di ci barkeelu di ci di ci aaru waaye nag di di di di di di jëfee li nga xam ne mooy li ci sëriñ bi dénkaane kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la ñaanal sunu borom defal la tawféex ak taysiir defal la it kaaraange yokk sa xam-xam ba li nga bëgg liggéeyal sëriñ bi lépp nga def ko bi barakati xaadim rasul ñi ngi sant it bokk yi nga xam ne teewoon nañ fii ñoom ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom it defal leen tawféex ni mu ko waxee léegi euh, sagam matlal foo sëñ lañu doon jàngat di jàngat kaaraangeel dëkk bi sëriñ bi it am ñu mu ko dénk ñoo it bokk na ci ñi fi teewoon ci jataay bi kon ñoom it ñu ngi leen di sant di leen gërëm muy sunu bokk yi nga xam ne ñooy waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall su ko defee ñi ngi sant bokk yi ñu doon topp yépp it ci MKTV ak CMT waaye ñi nga xam ne dañ koy topp ci teg gi nga xam ne As-Samadiyya TV danañ koy tegaat ak timis mi nga xam ne moom it dafay teew saa su nekk waaye làmpal télévision yi di ko jàllale en tey jii bokk na ci tasukatu xibaar yi fi teew yépp ñu mel ne Gamou production ak euh, ñu ni demee waaye site internet yi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy jël waxtaan wi di ko jàllale ñoom ñëpp it ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu bokk yi fa nekk di ñu seetaan ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi niki noonu RTS national muy euh, euh, télé rajo télévision nationale ñoom danañuy baamu waxtaan wi ñu koy déglu fu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew kon su ko defee dañu leen di fàttali tomb bi nga xam ne war nañ ko waxtaanee suba muy tomb bu am solo moom it te méngoo te ñëw ci waxtoom tamit te ñëw ci waxtoom démb doon nañ waxtaanee citoyen bi wala doomu aadama bi nga xam ne dafa war a tànn njiit lan njiit la war a tànn ak lu ko ci lislaam sant suba ñu war a waxtaanee kon leetar bi nga xam ne sëriñ Serigne bu soo da ko bindoon. buur bu ñuy wax ngaladu mel ne mel ne président de la république rek bi war a falu euh, sëñ bu Buso bindoon la ab leetar di wax di la wax njiit li ñu war a li falu nan la war a jiitee ab dëkkam ak comportement yi mu war a yor muy lisaanul xaq yatakallam euh, muy leetar boo xam ne sëñ bu so bindoon na ko buur bu ñuy wax ngaladu euh, di ko ci dénk ndénkaane yi njiitul réew ni mu war a mel kon ñi ñi war a fal ñoom it war nañoo teewlu waxtaanu suba wi ngir man cee jariñu loolu nag ki koy def mooy sëriñ docteur sëriñ Sam Bousso Abdourahmane incha allah suba ak jàmm docteur sëriñ Sam Bousso Abdourahmane moo koy def. kon ñi ngi fàttali bokk yi bëgg yónnee ay laaj ngir mu jëm ci fatawa mën nañu ko yónnee ci whatsapp wala ñu woote joxe laaj bi su ci 78 689 28 28 689 78 689 28 28 kon ñu ngi leen di dig daje suba ak jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa